yàlla moo ci wane kartanam waaye nag ñi am xel te mën a settantal rekk ñoo mën a jariñoo loola kartan la mooy lan yàlla moo am kartanu jël bakkanu kiy dund mu mu jël ko muy waxtaan di communiquer ak bakkanu ku génn àdduna buñ demee ba seen waxtaan jeex yàlla delloo bakkani kiy dund bakkanam ba mu continuer di dund ki nga xam ne moom xas na dee tamit ba ba yàlla jël ko noona mu continué ca deega ñaata ci ñun ñooy tëdd ba guddi gént sa baay di wax ak moom tama nga barsaq kon ndeke yàlla moo mën a boole alamu dunya wi ak alamul barsaqiya ñi lëkkalikoo ci jenn jamono kenn ku ci nekk waxtaan ak sa morom nga xam ne lii gént gu leer naññ la su demee ba nga xam ne gént ga jeex na rek nga war a yeewu rek sa bakkan bi dellusiwaat ci yow su ko defee moom tamit fa bakkanam ba nekkoon mu nekk fa te yàlla du jaxase ñaari bakkan yooya bu fekkoon na jëfi doomu aadama rek la mën naa jaxase bakkanam ki nga xam ne dee na mu jaxase ko bakkanam kii dund far ka jaaree ca gént ga far jaaree ca dee te fekk gént rek lan moo ne woon ki seen diggante kon ki man loola te du ko jaxase nga mën a nelaw yëgatuloo sa bakkan ba am ku muy communiquer kuy dund wala ku génn àdduna kooka bu ne la danaa la rey nga war koo gëm ku gëm nelaw war a gëm dee nga toog ba ci kanam tamit sa nelaw ya jeex nga yeewu ki la yee bu ne la dinaa la dekkil bu yowmal qiyaamee nga war koo gëm ku la man a yee mën na la dekkil loolu la ci yàlla bëgg a jàngale euh, ki man loolu kenn rek la mooy yàlla moom lay wax si nii moo tax mu ne allahu yàlla ya yatawafa dana faat al anfusa bakkan ya xiina mawtiha ci waxtu seen ak dee wëllati bakkan ya nga xam ne nag lam tamut deehut dana leen faat fii manaamiha ci seen waxtu nelaw benn nag mën nañoo jaaree ci ñanan ca nelaw dee deegu dëgg-dëggal mën nañoo jaaree ci nelaw tamit dee deegu ndaw lu ci mun di xam nag bu ñu defee seen communication ba mu jeex fa yum si ku ngëp lëtii bakkan yi nga xam ne xadaaxate na alayha ke ñoom almawta dee yi nga xam ne def nañ communication ba dee ta deexoon nañ yàlla na yéen fii ngeen di toog dootu leen demati ñi nga xam ne nag ñoom deexaguñu woon communication ba jeex na mu ne wa yursilu dana hebal oxra yeneen bakkan ya deexagutoon ilaa ajale ñi dem diir musamman ba de buñ tudd te mooy seen jeex seen seen adduna war a jeex inna fi dalika naka nekk na ca loolu li ayatin ay kaawteef yu tekki karte nag yàlla ci dekki mais ñi koy jariñoo li xaw ma ñeel naw nit yatafakkaru ñooy danañu xalaat waaye ko amul tafakkur mënuloo mënuloo mënuloo xalaat loola moo tax kon doomu aadama ñaari dee la am déegu ndaw ak déegu mag saa yoo nelawee nga yëg nga ñàkk a yëg rek yaa ngi ci déegu ndaw saa yoo demee nag ba sa rooxu teqalikoog sa jëmmu yaa ngi ci déegu mag waaye ki nekk ci déegu mag nekk ca barsax kii nekk ci déegu ndaw nekk ci àdduna yàlla mën a boole seen ñaari bakkan yi ñu def communication waxtaan gisante tabaarakallaahu dénkante laajante ay mbir ba jékki-jékki rek ki nga xam ne mi ngi ci alamu dun rek xeewu ba kanam del siwaat ci moom ka nekk fële tamit dee ba kanam dellu fa mu nekkoon te yàlla moomu du jaxase ñaari bakkan yi bu doon ñun léegi-léegi nga jël ki dund mbubbam ma solol ko kii dee wala nga jël ki dee solol ko mbubbam kii dund njaaxum am waaye léeg-léeg tamit ci biir biiri nelaw nit mën na caa nekk jaaree ca dee ñaataa nelaw xeewootuñ rawatina jamono jii nag bi nga xam ne tension dafa bëri nga dégg ñu ne diw naa nelaw na ñaari fan diw ñetti fan une semaine ngi nii xeewuut ñaareel ba jaaree na ca ba dem barsax loolu kenn xamut ni mu toll kon ki man loolu dëgg-dëgg moom rek mooy yàlla fii nag wax na ne allahu yatawafa te am na ci beneen aaya ne qul yatawafaakum malakul mawti waaye ñaari laay yi dàqante wuñ xaqiqatan kii rey kenn la mooy yàlla malakal mawti nag yàllaa ko wakil rek ak dee mu jox ko ci ndigal jox ko ci kartan jox ko ci sañ mu tiim àdduna bi tiim bakkan yi ak rooxu yi comme yow mii ni nga tiime sa téere bi wala yow mii ni nga tiimee sa bool bi wala yow mii di bind ni nga tiime sa feuille bi ngay bindee wala yow mi tiim ordinateur bi di tape ni nga ko tiimee moom tamit noonu la bakkan yëpp tiim teewee ci kanamam gàngu naayam nga ñu ne ma ngi ca ñeenteelu asamaan am na ci kaw asamaan ci juróom-ñaareelu asamaan garab goo xam ne ma nga fa mbooleem kuy dund sa xoba nga fa boo desee ñeen fukki fan ci dund rek ci àdduna ñu rotal sa xob mu xeg si ci moom mu xool ne a ah, kii kon ñeen fukki fan a ko dese ci àdduna dëkk sàngam la doomi diw ak diw la góor la mbaa jigéen la su ko defee nag malawul axlaa moom tàgge nañ la ba pare ndax buy xob way roor rek gars yi tàgge nañ la yow nag nga nekk fi nag gannaaw ñeen fukki fan nag mu xam na xam na heure baak jamono jaak waxtu ak place ba lépp su ko defee nag léegi moom nag am na ay awaan ñu koy dimbale ci liggéey ba ñooña ñooy ñooy not ci rooxu gi ndax dafa jaxasoo ci ji yëpp mu ngi tànk ya ma ngi loxo ya ma ngi ca bopp ba ma ca fu ne bu ñu ko roccee nag ba mu des doggaligu mujj gi rek malakal mawti nag ñëw def doggali ga kenn ku ci nekk moom doggaligu mujj gi moom moo koy def waaye nag am na ay junne junne ñu koy dimbale ci liggéey ba ñoom ñooy commencé liggéey bi ba dara desu lu dul dernier doggali bi rek su ko defee moom mu ñëw mottali ko waaye am na ci mbindeef yoo xam ne malakal ti du faat seen rooxu yi euh, ñooña sayyidatuna Fatima ca la bokk yàlla moo méngoo seen ak faat bu leen yàlla soxlaa rek yàllaay rocci rooxu ga tanam gën a seddee malakal mawti amul ci ndigal ñooñu yàlla nañu ci yàlla boole cala la yàlla boole woon sayyidatuna maanaam Fatima ak roxum yàlla ko jëlal boppam sans malakal mawti di ko jël kon bu ne qul yatawafaakum malakul mawti fii mu ne allahu yatawafal anfusa maanaam ñaari laa yi dàqante wuñ kii rey kee dëgg-dëgg kenn rek la maanaam mooy yàlla ñaareel bi tamit nga dégg ci ne gént lu doy doy war la am na ci xaal yoo xam ne nit ki bu ko tollee ak ci gént yoo xam ne bu ko géntee gént ga lu am lay doon yonentu bi nee na gént ku baax ci lu baax benn xaaj la ci xaaju nubuwatu waaye loolu waxin la an nubuwatu laa tatajasau nubuwa duur luy xaaju waaye dafa bëgg a wane ne boo gisee yonentu bi diirab nubuwatoom gi ñaar fukki at la ak ñett avant nubuwatu ga di daanu ci kawam ak risaalatu ga gént na juróom benn weer soo doon jël ñaar fukki at ak ñett nga koy xaaj par pari juróom benn weer ñeen fukki juróom-benn weer ak juróom-benn la lay jox su ko defee tamit njëkk muy gént njëkk muy am nu bootu ga gént na ko juróom benni weer mu jox la ñeen fukki juróom-benn weer ak juróom-ñaar yonent bi nag nee na gént ak ku baax ci lu baax benn juróom-benn weer la ci ñeen fukki juróom-benn weer ya ak juróom-benn moo tax kon ku baax ñaareel sell tëddaale ak njàpp di def ndigali yàlla yi di bàyyi tere yàlla yi kooka lum la géntal rek boo xeboo tiit ittaqu firaasatal mu'min fa innahu yanzuru bi yonent bi nee na dee leen mooy tund ku ngeen ragal njortug jullit waaye loolu dugal na gént ak jullit mu ne kooka yàllaa koy jox ca lumière am ya muy xoolee am na koo xam ne bu la géntee nga dee rek boo xeboo eh, huti sàngaay am na koo xam ne bu la géntalee donte nag gént lu naqaree firi la ndax léeg-léeg nga gént lii mu nekk safaan ba léeg-léeg nga gént ñaareel gént sax la ci gën a bëri boo géntee lii rek safaan ba lay gën a doon loolu la Aboubacar wax eh, ta loolu naanaam mooy mooy mooy mooy mooy li gën a dëgg moo tax firi gént bokk na ci li gën a jafe bañ ko laajee Cheikh Omar Fouti yi mu ne rek rekk ci foor wëli yóbbu yàlla piir wala kàccikat piir moom daal ku dul wax dëgg piir wala mu nekk wëliyu yàlla kooka rek moo foor ci gént genn benn wàll ga nag moo gën a yomb euh, maanaam narkat piir rek loo gént rek mu ne lii lak lii lak lii lak rek la moo tax gént lu naqaree firi la euh, imaam ahmad ca géntam nga ba waaja ñëwee ne ko damaa gént yi noddu mu ne ko demal nga tàggoo bala ngaa dee danga dem Makka toogaat keneen ñëw ne ko damaa gént yi noddu mu ne ko demal nga jëndi mbàjj da nga dem kaso te ñoom ñaar ñëpp ñoo bokk luñ gént kon léegi-léegi ay nit bokk luñ gént te fekk bokkuñu lu muy firi te ñoom ñaar ñëpp mi ngi ko jëlee ci baatab alquran wa azin fi naasi bil hajji yaatuuka rijaalan suratul hajji kooku aj lay annoncé fa azana mu azinun ayatuha saari ayatu alayhi wala te suratul yusufa innakum la saariquun foofa maanaam euh, sàcc lay tegtale ku takku sàcc sàcc moom place am mooy kaso ba moo tax ñaar yëpp mu mu mu firee noona moo tax kon gént danay dépendre ci ci maanaam euh, xaalu nit ki ak ci melaw nit ki euh, ñaareel bi tamit lenn ci borom xam-xam yi dañoo gëm ne dañu am ñu gëm ne ku mel ni zujaaj doomu aadama ñaari bakkan la am dafa am bakkan boo xam ne soo demee bay nelaw rek mu teqali koog yow dem dox yaay soxla dana la demal Amérique te tàgguwul la te yóbbu joxoo ko paas mu dem xoolal la mbedd yaag fu ne demal la Makka wëral la Kaaba gi naanal la ci ndoxu sam-sam ba te yow yaa ngi tëdd ci sa lal bi soo demee nag ba nga xam ne war ngaa yeewu rek mu ñëwaat de branché wu ci rooxu ci ci ci ci bakkanab cosaan bi ñi continuer ñi continuer maanaam di dund su demee ba dee jot nag ñoom ñaar ñëpp ñu bokk faatoo ndoor mooy mooy rooxu goo xam ne bakkan boo xam ne day taqoog yow toujours lu teqalikoog yow booba nag mooy boo xam ne booy nelaw yépp xam nga yaa ngi nelaw terewul yaa ngi nokki waaye da ngaa déggatul rek euh, da ngaa yëgatul rek ci lu bëree bëri waaye terewul sa nokki gaag sa lépp nga fa waaye nag beneen bi moom nag mooy débranché wu moom dem ci yeneen i place yooya mooy dox doxi gént yi waaye boo demee ba dee am rek nag ñaar yëpp euh, faatoo ndoor ñii nag jàppee ko ne doomu aadama dafa am rooxu ak bakkan Euh, ci wàllu bakkan bi ci la xel ma nekk ak jàqee ga euh, ci ci wàllu rooxu gi ci la xel ma nekk ak yaatuwaay ba ak nangam boo ko doon misaal léegi daal euh, doomu aadama boo gis dafa mel ni tar jëmmam ji kaadaram bi téléphone la téléphone ñaareel da nga gis yoo xam ne dana am dana am maanaam carte muy fiis bi ciy nekk pour nga mën a mën a woote muy fiisu abonnement bi waaye am na ci yoo xam ne dana am carte mémoire mémoire bi nag mooy maanaam xel mi euh, bakkan bi nga xam ne nag maanaam bakkan bi moo taxaw taxawaayu euh, fiisu téléphone bi moo tax bu ca carte ba génnee rek euh, téléphone ba dee gumba na tëx na dootul mën a xoote dootul mën a xuyooti carte mémoire yi nag dañoo gën a rëyante am na ci yi nekk 4 ñi nekk 6 yi nekk ba 8 doomu aadama yi tamit seen yi noonu lañ mel am na ci ñoo xam ne seen xel dafa gàtt am ci ñoo xam ne tamit seen xel dafa yaatu ñu jàpp ne tamit ñaari bakkan la am am na ci téléphone yoo xam ne dubul fils la yaa ngi ci dugal maanaam carte jamono bii nga dugal ci beneen bi su ko defee nag terewut benn bi mën naa génn eh, du fa neexati terewut téléphone baa ngay dox waaye ñoom ñaar buñ génnee ndoor rek dara nekkatu fa kon lépp da yàlla mi ngi koy misaal ci suñ jamono ji mu gën ñoo jege moo tax mu ne allahu yàlla yatawaffa dana faat al anfusa bakkan yi xiina mawtihaa ci waxtu seen ak dee wallati bakkan yi nga xam ne lam tamut deehut fii manaameha dana leen faat ci seen waxtu nelaw faat gu ndaw mën na caa jaaree tamit faat leen faat gu mag fa yumsiku dana ngëb lëtii bakkan ya nga xam ne xadaa xatte na àlla ki ñoom almawta dee wa yursilu mu hebal uxraa yeneen bakkan ya ilaa ajalin mu jëm diir mu musamman ba di buñ tudd inna fi daalika naka nekk na ca loolu la ayatin ay kawtéef yi tegtal ak dekki li qawmin ñeel nit yatafakkaroon yooyu danañu xelaat ñoo ko mën a jariñoo ànd ak mu def lii lépp li muy xéemee yëpp xéeféer yi seen xel yi leerut bàyyi nañ fi yàlla dem di jaamu ji ay xiram buñ leen laajee ñu ne dañoo bëgg bu yowmal xiyaamee xiram yi ràmmuñu yàlla ne naka ko amul dara nu koy nu muy mën a rammee ñaareel bi yéen ngeen di jaamu xeluwuñ ne sax yéen a ngi leen di jaamu naka leen leen di ràmmee xanaa xamu leen ràmm lépp yàllaa ko moom kuy ràmm ci ndigalal yàlla dong ngay mën a rammee ka ñuy ràmm tamit yàllaa koy gërëm ne nañ ko war a ràmm kon su boobaa yow bu fi nekke naan naa topp diw pour mu ràmm ma da ngay tardé jaamul yàlla kese ndax mën ngaa topp nit sonn ca boo lëggee bokkul ci nga ñuy digal kon perte nga mën na caa bokku te yow bokku ki ñu war a ramm perte nga ndax man zal si yasfau indahu ila bi idnihi fale tamit mooy walaa yasfauna ila liman irtada yow boo bokku ci ngeen gërëm kon sa waaji bu ca bokkee te yow bokkoo ci perte maa ñëw na bu sa waaji bokkee maanaam boo ca bokkee te sa waaji bokku ci tamit perte maa ñëw na kon gëmal ne ramu yàlla rek moo ko yore mooy seet ko neex mu digal ko moom lay wax si nii moo tax mu ne am bàyyil ittaxasoo ñoom jàpp nañ min dooni laay wali si yàlla ay xiram sufaa pour ñu war a ne ramu ëllëg qul wax leen yow yonantu bi ne leen awalaw kaanoo doonte nekk na ñoom xërëm yooya laa yamlikuuna moom tiit say an dara ko amul dara ndax mën ngaa maye wala yaqiloon doonte yooya xeluwuñ na sax yéen a ngi leen di jaamu sax ñoom yëguñu ko ndax ñooña kon dañ leen mën a ramm qul wax leen ne leen lillahi aji sax la ñeel yàlla ashafaatu ak ramm jami an mbir mu muy mboole seen lahu aji nekk la ñeel ko mulku samawaati nguuru juróom-ñaari asamaan wal ardi a nguuru juróom-ñaari suuf su ma turjauna topp na topp def na delloo leen yéen jaami yàlla yépp illahi jëmee leen ci yàlla wa ida sukkira ndéem tuddeef na laahu yàlla maanaam wax doxa mbir mu muy nekk moom kenn isma asad banku boole koog foñ xuloobu la si na xolu gaa yi nga xam ne laa yóomi ñoom gëmuñu yàlla wa gëmuñu bil axira ci àllaaxira waaye wa isa sukkira ndéem tuddeef na la si na nga xam ne min dunihi walis na yàlla di ay xiram su ko defee fa isa ci mbetteel hum ñoom isa ci mbetteel hum ñoom yastabsiruna ña ngay kontaan bég lool yàlla na jaamukatu xiram ya ak bokkaalekat ya la ñuy bokkaalee soo ko tuddee bàkk ko rek ñu kontaan bég lu ne man nañ ko joxe ci alal lu ne mën nañ la koo teralee waaye boo tuddee yàlla moom kenn kese seen xol ya foñ seen xol ya wow seen xol ya banku duñ kontaan ñi boo ñu boole ko naqar kon bokkaale kat piir boo bàkkee xiram wala nga bàkk la muy bokkaalee mu gëm ko fonk ko ba ba teg ko ci kaw yàlla moom day kontaan mën na la caa jox lu ne waaye tamit nag boo tuddee yàlla ay kese rek moom mu banku loolu nag bëri na trop ci jamono ju nekk nag mën nga ko caa valable na ca su ko defee kon nit ku nekk yàlla dafa laa war a gënal ku ne gënal la lu ne gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa sëriñ gënal la mbooleem mbindeefi yàlla yi da nga xam ne ñoom ñëpp ay mbindeef lañ waaye saa yu la mbindeef gënalee yàlla rek suñ bàkkee mindeef mooma rek nga kontaan joxe sa alal suñ tuddee yàllay kese sa xol ba banku du ca nangoo ànd ndax ñu ci bëri nag yàllay kese mënuñ ca dara yàlla juñ pentiir rek Eh, eh, maanaam fuddan ko eh, kii ko ba mu gànjar ko ba mu rafet ca lañ man dara waaye boo ne yàllaay kese ñu ne yàllaay kese dafara tax su ko defee kon loolu tamit erreur la kon loolu bëri na ay tegu ci yàlla ngi wane kartanam ci bind gi bind juróom-ñaari asamaan ak suuf xam lu fàddu comme ni mu xamee lu feeñ di xatte jaam yëpp ëllëg ci yowmal qiyaam ci seen jëf ya te buñ fa heggee da nga gis ku doon bokkaale yàlla ngeeju hoon suufa li ci nekk ci gànjar ci xéewal yépp mu am ko ak lu toll ni moom mu mën koo njotoo joxe ko te mën a mucc ci safaraaw yàlla wa yàlla ne loolu tey alal du fi tax a mucc kenn jëf ju baax rek ma laa yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ku ko amul rek tey danga nga da torox moom lay wax si nii moo tax mu ne qul waxal ne allahuma yow buur faatira samawaati yow mi bind juróom-ñaari asamaan yi laa wax wal ardi yow mi bind juróom suuf yi aalimal xaybi yow mi xam lu fàdduli wa shahadati ak lu feeñ anta yow tax ku mu yaay xatte bayna ibaadika diggante sa jaam yi fii maa ci la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yaxtalifu ne di wutee fii ci moom wala wa ana la na doonte ak yi nekk la ñeexaloon li nga xam ne wala moo tooñ nañ maa fil ar li nekk ci suuf jamian mbir mu muy mboole seen wa misluhu ak kemam maawoo mu ànd moom li konoon lafta daw ñu njota bii ci moom min suu il azaabi ca bon ak mbugal yowmal qiyaamati keroog bis penci fekke wa bada daa feeñ lahum ñeel leen mi ne laay ci yàlla maa la nga xam ne lam yakkoonoo nekkuñu woon bona di njort ne lu bon li dana feeñ wa ba daa feeñ lahum ñeel leen sa yaatu maa ñaawteefu la nga xam ne kasa boo fàggu nañ ko lépp mu taxaw seen kanam waxa qexee bihim ci ñoom maa la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ si yastahsiwuna di dëppatug yëjji bii ca moom loolu lépp taxaw seen kanam yàlla nee na moom moo bind juróom-ñaari asamaan mooy faatira samawati wal ard mooy alimal xëy bi moo xam li fàddu li nga xalaat ci sa xol sax wala mu ne sa xol xalaataguloo ko sax yàlla xam na ko ya'lamu sirra wa axfa su ko defee yonentu baa ngi koy misaal ne doj wu ñuul kook ci biir lëndëm gu ñuul kook melentaan wu ñuul kook di ca dox heure baag fa muy doxeek na muy doxeek la ko tax di jug yëpp yàlla xam na ko kon yàlla xam na maanaam kulliyaat yi waaye yàlla xam na jus iyaat yi mag yu mag yu mag yëpp yàlla xam na koog nam taxawee ndax moo ko fa taxawal waaye détails yu ndaw yi tamit yëpp yàlla bàyyiwut ca dara te négligé wut ca dara bu yowmal xiyaamee nag mooy xatte jaam yëpp kenn ku nekk dana wéet ak yow ba nga foog ne yow rek la mos a bind léegi léeg mu wéet ak yow sa yu bàkkaar yu bon ya nga daan def yëpp fàggu ko mu feeñ nga jàq tiit nga ne su ma amoon lu toll ni adduna ak lu tol ni moom ci ay xéewale ki teraanga ma man koo joxe par mën a njotu fii waaye fekk na loola amu fa ndax liy musal nit fii ci àdduna ci giraawaali bokkut ak liy musal nit ci àllaaxira fii giraawaali goo dugg yàlla mën na laa dimbalee soo amee alal man mën nga caa génn boo amul alal daraja mën na la caa génnee bu la daraja mënta génnee intervention borom daraja wala borom ba tànk mën na la caa génnee yàlla nag nee na foofa ci àllaaxira ku mën a def intervention amu fa amul kenn koo xam ne sax da ngay yëkkati kàddu di wax su ko defee tamit lu dul koo xam ne man yàlla maa ko digal ñaareel ba tamit ku fa alal juñ fay joxe amu fa ndax fa fa alal yeggut fa daraja tamit amut fa ndax askan wa man di bokk boo ñëwee duñ la ko laaj fala ansaaba baynahum yawma idin wala yatasaaluuna su boobaa kon nag lii musal nit fii ci àdduna ci giraawaali bokkut ak lii musal nit fële ci àllaaxira la fay musal nit daal mooy jëf ju baax rek joo xam ne nii yàlla nangu na ko te nga jëfoon ko ngir yàlla loolu dong moo la a sooy lu dul loolu rek boo ko defee da ngay su ko defee tamit aaya ji ba tey yàlla mi ñu bind moo ñu xam mi ngi xam ne ne li ëpp ci nit ñi ay nit lañ yoo xam ne su ma leen tëralee sama ndebu sama ndabal teraanga muy xéewal rek ñi beew ba ne lii dama koo mérité wu polom yi ma am sama njàng mi sama yaay ni mu sëyee sama bàppa ni mu baaxee foog ne loolaa ko may lim am te fekk am na ko ko gën foofu loolu lépp te fekk loola amu ca dara loolu la na waxoon moo tax yàlla xalag na ko loo wax mu ne lii dama koo mérito te loolu dafa bëri ci nit ñi loo jox nit rek mu ne lii mënul la woon a nangam fal guñ la fal nga war a jàq ut ñu lay jooyle gaa yi ñëw dar la ñuy ut dara commencé la bàkk xamoon nañ la lii jombul la de sa sa yaay liggéey na ko fi sa nangam ak nangam su ko defee ñoon ñëpp bëgg lu ñu yóbbu ca kër ga rek te loolu du jeex yàlla lu mu defal nit moo ko def ci mbaaxam moo ko def ci ngëneelam moo ko def ci sañ-sañam waaye doom aadama mérité wu dara lu dul lu ko yàlla jox moo tax mu ne fa ida masandeem jot na al insaana xeetu doom aadama duran lor daana mu ñaan ñu comme baaxam su ma ida xawal naahu ndeem may nañ ko ni'matan ak xéwe min naa gu bàyyee ko ki ñun xaala mu ne innama utiitoo ndaal joxeef na ma ko rek ala ilmin ci xam xam naa ne lii dama ko méritoo te xamoon naa ne xam li Qaaruuna waxoon innama utitu ala ilmin indi yàlla ne bal li fi nekk hiya kàddu googu de fitnatun fitna la walakin li fi nekk aksaruhum li gën a bëri ci nit ñi laa ya'lamuuna xamuñ loolu fitna la de qad qaalahaa waxoon na kàddu googu lazina ñi nga xam ne min qablihim jiitu woon nañ leen te moo doon Qaaruuna fa ma ax naa jëriñut anu walis leen maa la nga xam ne kaanoo nekkoon nañ yekk si bu na di ko fàggu de fa asaabahum jotoon na leen jotaloon na leen sa sayyi'aatu maa ñaawteefu la nga xam ne kasa boo fàggu woon nañ ko walladiina ak ña nga xam ne zalamoo tooñoon nañ min haawulaay ci waa Qurayshi yi sa yusiibuhum ne na leen sa jot sayyi'aatu maa ñaawteef la nga xam ne kasa boo fàggu nañ ko wa maa hum déet ñoom bi mu'jisiina ñi mën a rëcc yàlla awalam ya'lamu xanaa xamuñu anna Allaaha naka yàlla yubsitu mooy tàllal risqa wërsëg li man yashaaw ñeel ku ko soob wa yaqdiru mooy xatal wërsëg ci ku ko soob mu xasaf ko inna fi zaalika naka nekk na ca li ayatan ay kawtéef li qawmin ñeel nit yu'minuuna ñoom danañu gëm de kon wërsëg yàllaa ko joxe moo ko moom moo koy jox ko ko neex sa wërsëg yaatu nga foo ne sab liggéey laak sa dàngam la fekk dala koo nattoo seet ba xam da dimbale na nga ñi nga ñi nga tenem déet seet ba xam da nga tabee seet ba xam da ci jaamu yàlla soo lëggee boo ko ca defee yàlla wërsëgal la aljana soo téye sa wërsëg wi nag doo ca lekk doo ca lele bu yowmal xiyaamee yaag moom yépp ñu bokk leen lakk leen safara yàlla nañ ci yàlla musal su ko defee tamit ki yàlla xatal wërsëgam tamit nattu la xatal na wërsëgam seet ba xam dana soxor seet ba xam dana añaan su boolee soxor añaan ak xat wërsëg mu xam ñaari safara safara ñàkk waa xol bu tàng ba su demee ba dee tamit yàlla lakk jëmmam ja su ko defee kooku kon musiba la moo tax ku yàlla ñàkkal sa ñàkk gi exeme la seet ndax danga nga soxor wala déet boo soxoree rek yàqule ñaari yoon ku yàlla jox wërsëg exeme la muy exement boo xam ne day seet ndax sa xol dana yaatoo da nga dimbaleeg tabaarakallaahu euh, da nga tabe soo lëggee tamit mu nekk loo xam ne lu lay jëriñ la bu nekkee safaat ba tamit loola moo la cay fekk kon loolu lu jar a bàyyi xel la waaye buñ falati kenn dox la ba tànk ñu naan da nga koo mérito ak ñii ñëw di la tàggak sa yaay liggéey na ko fi lu ëpp li jombul la woon man nga fee am lu ko ëpp ak nangam ak nangam am na ku la ëpp diplôme téeméeri junne yoon laq dàq laa jàng yaayam gën a sëy sa waajur téeméeri junne yoon yàlla xeñ ko loola kon nañ yëg na yàlla dong mooy joxe yàlla dong mooy xeñe ku mu jox nattu na la ku mu xeñ tamit nattu na la su boobaa nag ñaari yëpp nga fexe ba dund nattu ba soo ko defee rek am jàmm boo ko dund nag boo ko dund rek nga nga nga am fitna waaye nangam dama ko mérito wax ju yàqu la te loolu bëri na ci ñun doomu aadama yi lool jaykat yi ñoo ku yàqule yi rek ñoo lay jay bëgguma jaar ci tur yi yéen a ma leen gën a xam mu qul yaa ibaadi alladina asrafu aaya la joo xam ne mi ngi wàcc ci Wahshi yu Wahshi yu moo rey Hamsatu Hamsatu mooy bàyyi taxu sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di laysil ilaahi wa amil haadi karimil xisaali di jàmbaaru fàkk tëdd keroog xareeb Uhud la ko wax siw ray xar dënn ba ba génnee res wa di ko puufu xam nga jëf ju bon mën ta paase loola waaye yàlla la kenn mën ta dàq nit dana def lu bon ba xal jaana fekk ko ca léegi-léegi nit di def lu baax ba safara fekk ko ca kon moom defam lu bon loola ca la ko xal jaana fekkee ndeke xolab ku gëm yàlla kii mu rey ba xotti ko daggate cër di puufu res wa yàlla ne ko kii gëm yàlla am fees na tepp ci xolam bi dara amul luy taq ci sa gémmañ lu dul ba dana la sowe ëllëg ci aljana mu def loola dema dem ba mu yàgg mu bind yonantu bi leetar ne ko damaa bëgg a tuub dugg ci lislaam waaye dafa am aaya juma ci jaaxal alladina laa yad'uuna ma'a llaahi ilaahan aaxara wala yaqtuluuna nafsa allati harama allahu illa bilhaq wala yaznuuna yàlla dafa wax ne texe daal dana ñeexal ñoo xam ne ba ñuy jaamu yàlla bokkaale wuñ kook dara ishraak amul ci seen dund bi ñaareel bi reyuñu bakkan bakkan boo xam ne yàlla reyluwut ko ñetteel bi mooy moyuñu njaaluwuñu mu ne ko man nag munu maa tuub ndax rey naa bakkan maa rey sa baay tax bi ñaareel bi tamit mooy naa yàlla ci jigéen ñetteel bi bokkaale naa yàlla kon man su ma tuubee sama tuub gi amul benn njariñ ndax ñetti yàlla tere yëpp def naa ko comme damay dem safara rek bàyyil ma nekk ci li ma ne foofu loolu loolu moo njëkkoon a wàcc yàlla wàcceewaat la ca tegu setti ne illa man taaba wa amana wa la saalihan mu ne mu aaya ja wàcc ñu yónnee ko ko mu jàng ko mu ne waaw yàlla ne lu ko lu dul ku tuub man de dogu naa ngir tuub ak ku gëm yàlla dogu naa ngir gëm yàlla waaye wa la saalihan dafa ne ku jëf-jëf ju baax xóorul ma nag su ma tuubee danaa jëf-jëf ju baax am déet mënagumaa tuub ba tey kon ku compliqué la waaye nag compliqué lu baax la boo compliqué boo compliqué wul rek doo mën a complété dara soo bëggee lu complété da ngay compliqué su ko defee kon nag mu toogaat ne du tuub ñu demaat ba ci kanam aaya ji door a wàcc nag yaa ibaadi ladina asrafu ala anfusihim ba bam ko jàngee rek la ne waaw kay maa ngi door a gis sama bopp moo tax aaya yëpp ci alquran aaya ji moo ci hëpp yaakaar aaya ji li muy tekki mooy yéen sama jaam yi nga xam ne jéggi ngeen dayoo ci mooy yàlla mooy yàlla gu nit wax rek def ngeen ko sàcc ngeen fen ngeen mooy ngeen def ngeen lu ne yàlla nee na bu leen naagu sama yërmande ji moo ëpp seen mooy gi te man yàlla mii danaa jéggale mbooleem bàkkaar yi booba benn bàkkaar génnut ca moo tax aaya yi ci alquran yi yépp aaya ji moo ci gën a moo ci ëpp yaakaar keroog ba mu wàccee rek nag ci la wax yu ñëw tuub ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam saaba yi tamit nag saalik ñëw ci yonantu bi ne ko aaya ji moom pour moom rek la wala nag laa taqnatu min rahmatillahi inna laa yaxfiru zunuba jamian moom rek la yonantu bi ne leen déeréet nag loolu jullit ñëpp ko bokk waaye ji nga aaya ji boo xamutoon problème xam de aaya ji gën a raglu ci alquran mooy aaya ji yàlla wax ne wa man yaamal suu an yu gisa bii yu gisa biihi képp ku def lu bon rek yàlla fay la ko aaya ji bu mu wàccee abubakar li muy baax baax jàq na ne yàlla wax ne ku def lu bon mu fay la ko te ñun ay jaam lañ ay doom aadama lañ mënuñoo ñàkk def lu bon danañ koy wax danañ koy jëf danañ koy fas yonent bi ne ko fay ni ñoo wuutee abubakar dooy feebar mu ne ko ah kay abubakar dooy jàq mu ne ko ah kay mu ne ko yooyu yëpp ci fayinu bàkkaar ya la léeg-léeg nga ñàkk ñàkk nga yëpp ci ab jullit dafay kafaara say bàkkaar rek léeg-léeg nga feebar feebar ba du dara dafay kafaar say bàkkaar léegi-léeg nga jàq léegi-léeg nga yàqule ci sa alal wala ci sa njaboot jafe-jafe dal ki sa kaw sa néegu say wala sa néegu yow jëkkër ji wala ci sa liggéeyuwaay booy ab jullit nga gëm ko rek dafay kafaara say bàkkaar moo tax jullit amul dara lu ko dal loo xam ne dafa nekk neen wala luy niile lu ko dal rek bénéfice la ci moom lu la dal benn muy fa say bàkkaar dana la topp ci feebar feebar ba métti ba ba muy génn àdduna deseetul benn bàkkaar day dee rek dem aljana xam nga feebar bu métti nag dee ci sa bàkkaar yëpp ruus moo gën nga jékki-jékki dee nekk ci jàmm amoo benn problème dee dem safara dara jaru ko moo tax kon nattu dëgg-dëgg lu baax la ci ab julit saxaaba yonent bi ku mos a toog ñeen ñeen fukki fan dara dalul la amoo feebar ci sa yaram yàqulewoo ci sa alal yëgoo lu la naqari ci sa njaboot yëgoo ko ci say mbokk da ngay jàq tiit ne man lu ma def yàlla sama gëm yàlla gi war naa koo vérifier de lu ma def yàlla ba natt hut ma ñun ñii nag ku ci nattu ku ci yàlla nattu ñeen fan tegaat ca ñeen fan nga ne lu ma def yàlla yéen ñaar ñëpp lu ma def yàlla fekk sama seen lu ma def yàlla yi duñ su ko defee kon euh, jullit dañ koy nattu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku gën a gëm yàlla rek sa nattu yow lay gën a ci lay gën a tiis sa nattu ci lay gën a métti waaye moo tax nattukat yëpp yàlla nattu woon leen bu yowmal qiyaamee yàlla da leen di sotti yiw bañ na doyal nañ ñi amutoon nattu di jooy ne ñun suñu yëgoon kat ñu jël siso di dagg suñu yaram yi par benn cër ba lépp jeex innama yuwafa saabiruna ajruhum bi gayri xisaabin moo takkoon kon lu baax la ci ab julit moo tax kon wa man yaamal yu gisa bi aaya bu gën a raglu la ci alquran aaya bu raglu la ku def lu bon rek yàlla fay la ko rawatina nag léegi yàllaay léegi ji donte yàllaay démb jëg tey ak ëllëg benn lañ waaye waxin la su ma namee ci yàllaay léegi ji lu bon ku ko def rek ca saasa nga koy gis lu ko waral bu njëkk ba ku defaan lu bon yàlla da lay suturaal ba àllaaxira du la weer lu war lu ko waraloon lu bon dañ ko daan nëbbu yaa ko doon nëbbu yàlla nëbbale la ko rek ba àllaaxira léegi nag lu bon dañ koy manifester di ko feeñal yàlla comme nag ne da ngeen ni mani manifester mooy gi man tamit damay manifester sama mbugal mi ci yéen bala ngeen a yegg àllaaxira moo tax léegi ku def lu rek balaa ñetti fan ñeent rek nga gis ko bu yow ma xiyaamee nag mu ne la lii moo doon téeñ bi waaye yan baa ngi door di yegsi loolu kon jar na bàyyi xel kon aaya ju raglu la aaya ji moo tax mu ëpp yaakaar ci alquran moo tax wax si yu tuub dugg ci lislaam te moo rey Hamza xotti dënn ba génnee res wa ba di ko puufu kon yàlla ku bëri yërmande la sa bàkkaar lu mu bari bari bëri bëri bul naagu ci yërmande yàlla waxal la bu sayruy waxoon rek ragal naa daal yërmande yàlla ji buñ koy séddale ëllëg dañ koy séddale kem ni mooy yàlla yi toll kon ku xëppale woon looy mooy yaay xëpp ci yërmande ja moo tax yonentu bi ne yàlla am na téeméeri yërmande juróom-ñeent fukk yëpp ak juróom-ñeent denc ko ba yowmal xiyaam benn ba rek la wàccee ñi ci yërëmante ba ci mala yi sax ci lañ yërëmante nga gis mala boo xam ne xar la bay la ma nga yërëm doomam ja yow mii nga gis ku ñàkk nga yërëm ko nga gis ku feebar nga yërëm ko nga gis ku jafe-jafe ci yërëm ko benn rahmatullahi googa rek mu xaajee ca téeméeri yërmande bi a juróom-ñeent moom la ñu xabal ñi ca yërmandante kon xam nga ne yërmande yàlla yi bu indee téeméer téeméer bu manqué benn ba ñun ñëpp dañ ci xaj ñun ñëpp xaj nañ ci yonent bi wax na ko sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal saxaaba yi abi hurayra moo génnee hadis bi yonent bi dafa toog ne leen ca ña leen jiitu woon ci banu israil am na waajoo xam ne rey na téeméeri nit yu manqué benn mu toog xelam daj yàlla bëgg a tuub mu laaj ko fi ëpp xam-xam ñu tegtal ko ab labbe mu dem ne ko damaa bëgg a tuub dellu ci yàlla rey naa téeméeri ñu manqué benn kooka nekk ku xat xol nekk ku ñàkk yërmande ndax am na ci waaraatekat yoo xam ne li lay sedd seen xol mooy dugal nit ñi safara rek foog na ñoom bu ñu leen dugalee dañ cay mucc ba mel ni apprenti car rapide ba mbaa jaganjaay ba mooy rek moom fu arrêt bu mu toll wàcc waaye bu wàccee fexe ba client yëpp dugg moom mu nekk ca gannaaw day bëri su ko defee tamit nag waaraatekat booba mel noona waaye tamit ko am fula la ne ko comme kay safara laa jëm bàyyi ma mottali la téeméer rek dagg dox ga toogaat xelam nekkaat ci tuub mu laaj texaat ki dàq jàng ñi wan ko ko tegtal ko benn jàngkat mu dem ne ko téeméeri nit laa rey sama lu dul mbaax rek mbaaxam ko gënal sama xel mi yëpp yàllaa ci nekk tuub rek laa bëgg mu ne ko foo mos a defee lu bon gàddaay ko dem place boo xam ne mosoo faa defee lu lu bon mu takkaay bagaasam gàddaay ba dem ba xaajale rek dee malaakaay yërmande ak malaakaay mbugal yi di ko xëccoo ñi jàpp tànk yene safara ñee jàpp loxo yene aljana yàlla hebal mel na malaaka mu ñëw xatte leen ne natt leen fi mu ko mu bàyyeekoo fi mu tëdd su paree ngeen natt fi mu tëdd ak fi mu jëm fu ci gën a jege bañ ko seetee fa mu doon jëm gën a jegew benn jéego dafa xaajar ak jéego benn jéego yàlla ne xatte leen ko fi mu gën a jege comme fa doon defee lu baax moom la gën a jege dugal leen ko aljana rey na téeméeri nit yow reyoo kenn sa sa yërmande war naa war naa tagal beneen hadis bi abi hurayra ko génn yu doon too ko wax mu ne ki ngeen leen jiitu woon am na waajoo xam ne luy sa xalaat ci lu bon def na ko bàkkaar boo wax def na ko ba mujj nag ba mu demee ba bëgg a dee mu wax doomam ya ne leen dama bëgg ngeen lakk ma su ngeen ma lakkee ba ma xëm ngeen dëbbu ma su ngeen ma dëbbee ba ma mokk ngeen jéeri ma ci géej gi ak jéeri ji rek sama lépp tasaaroo ba mu defee loola nag yàlla hebal suuf ne ko loo jëloon ci moom delloo ma ko hebal ngelaw loo jëloon delloo ma ko hebal géej loo jëloon delloo ma ko ñi dag ñi yàlla de yooyu yëpp delloo ko yàlla mu nekk jëmm ju taxaw ci kanam yàlla yàlla ne ko foogoon nga ne buñ la lakkee dëbb la jéeriire la doo dajeeg man lu la xiir lu la xiir ci lii mu ne ko ma malaa ragal a ragal ba bëggumaa dajeeg yow mu ne ko demal aljana <laughs> waaw dama laa ragal rek bëgguma sax fu ñu lay tuddee sax sama sama fit wa daw moo taxoon ma ma foo du ma dajeeg yow moo tax tey ma def lii yàlla na ko acce demal aljana kon nga xam ne yërmande yàlla ji yaatu na euh, yàlla sax ki mu gën a jéppi ci nit ñi mooy kuy xeñe ci yërmande yàlla ja kenn ñaari nit jaamukatu yàlla lañ hadis la ba tey kii baax lool mën a jaamu yàlla kenn ka bon lool mën a mooy yàlla kenn ku baax ka wax ku bon ko ne ko sa bàkkaar yi bëri na yàlla mënu laa jéggal safara nga jëm dee nañ dekki nañ ci kanam yàlla yàlla wax waa ja waxoon ne mënu maa jéggale yow kon yàqatal sama yërmande demal safara kii nga waxoon ne mënu koo jéggal demal aljanna moo tax kon bu nit bona bona bon ba nga dugal ko safara bu nit bona bona bon ba nga def ko xéeféer te léegi kéeféer loon nit ñi bëri na nit nekk ci dara boo ko leen pas-pas rek nga ne xéeféer la yonentu nee na ku ko wax rek yéen ñaar ca saasa kenn ka nekk na ko ka nga wax ne xéeféer la bu ko dóor a yow xéeféer nga dangaa taxaw ci maqaama bi yàlla di xattee moo tax kon na nañu bàyyi xel ca yooya bokkuma ak nit ki tariqa bokkuma ak moom pas-pas bokkuma ak moom nangam ma ngay def nangam rek nga ne kon xéeféer la loolu woo duhul wax ju simple de wala nga ne ko sa bàkkaar yi bëri na ci biddaa nga nekk safara nga jëm foog na yow nag yaay ki jekk yaay ki baax yaay ki defaru boo moytu yaay dem safara yàlla yërmën nañ ñu ñëpp xaj nañ ci kon moom lay wax si nii moo tax mu ne aaya ju aaya ju yaakaaru la aaya ji def na niddaa muy yaa ji am na mu munaadaa mu yaa ibaadi am na idaafatu tasrif yaa ibaadi xam nga yàlla dugal la ci ne yéen yéen sama jaam yi rek loolu dal na xel yàllaam lëmm taf taf la ci boppam xam nga borom kër sax bu toogee ne yéen sama njaboot gi yéen sama doom yi dangay ngay kontaan eh, ci lu mel noonu nga am sëriñ bu mat sëriñ mu toog na yéen sama taalibe yi nga am xarit bu mat xarit mu ne yow sama xarit bi da ngay kontaan su ko defee tamit yàllaam lëmm kum ne yaa ibaad yi yow nga dugg ca yaawu idaafa goog nga xam ne idaafatu tasrif la dëgg-dëgg doy doy na doy na mbégte gannaaw bi mu defee loolu mu def mu def mu def wasfu ñu ne ko ñaan mu ne alladina asrafu ala anfusihim ba mu paree mu def nahyu ne laa taqnatu bu leen naagu ba mu ca bàyyeekoo mu def wa'du muy dëxal ne inna allaha yaxfiru dunuba jamian aaya ji aaya ju balaaka la li muy gàtt-gàtt yi ni daa ngi ci munaadaa ngi ci idaafatu tasrifa ngi ci wasfu mi ngi ci waaye tamit eh, nahyu mi ngi ci wa'du tamit muy dëxal mi ngi ci ci aaya li muy gàtt-gàtt ñi jàng balaaka ñoo xam loola moo tax mu ne qul waxal yow yonantu bi ne sama jaam yi alladina ña nga xam ne asrafoo jéggi nañ dayoo ci bàkkaar ala anfusim seen bopp wax leen ne laa taqnatoo bu leen naagu min rahmatillahi ci yërmande yàlla ji inna allaha naka yàlla yaxfiru dana jéggale sunu ba bàkkaar yi jamian bi muy mboole seen innahu naka moom yàlla huwa moom dong alxafooru muy jéggale ha kon bi arahima mooy borom yërmande ji nañ kon na xel yi dal aaya ji mu ne wa aniiboo na ngeen dellu ila rabbikum jëm seen borom wa aslimoo na ngeen sellal jëf la hoo ko min qabli an yatiyakum njëkk ba leen i dikkal al azaabu mbugal ma summa laa tunsaroon topp deefu dimbaleef leen de wa tabioo topp leen axsana maa gën caa rafeti loo xam ne unsila wàcceef na ko ilaykum jëm ci yéen min rabbikum bàyyi ko seen borom muy alquran min qabli an yatiyakum njëkk ba leen i dikkal al azaabu mbugal ma baxtatan ci mbetteel fekk wa antum fekk mbir moomu yéen laa tasuloon du ngeen ko yëg de su ko defee tamit aw taqoo la njëkk ba an taqoo la njëkk bay wax nafsun bakkan ne yaa xasratee hoo naa naa samak perte ala ma ala ma faratu ci li nga xam ne sàgganee naa ko fii jan bi laay ki topp yàlla wa innaka man mi kuntu nekkoon naa la mina saaxirina bokk ki nga daan yëjji alquran aw taqoola wala njëkk bay wax moom bakkan bi ne law an na laa doonte woon naka yàlla hadaa ni gind na ma la kuntu kon ma nekk minal muttaqina bokk ci ñi ragal yàlla ña aw taqula wala njëkk bay wax moom bakkan bi xëy na tara waxtu wa muy jàkkaarloog azaaba mbugal ma ne law an na lii doonte aji nekk la ñeexoon la ñeexal ma karatan ak dellu fa akuna kon sabab soosu danaa nekk minal muhsinin bokk ca way rafetal nga de balla sama borom ne ah kay xad jaat ka dikkaloon na la ayaati samay kaawteef te mooy alquran fa kazabta nga narloo bihaa ca moom wastakbarta nga rëylu wa kunta nga nekk minal kaafirin ci xéeféer yi de wa yawmal qiyaamati keroog bis penci taraa da nga gis la si naña nga xam ne kazzaboo ñu ngi doon narloo ala laay ci yàlla di ko weddi wujuuhu mbir moomu seen cëlmaay ya di seen xarxaram ya muswaddatun lu ñuulal la alaysa fii jahannama ndax dee di nekk ci safara maswan saxuwaay lil mutakabbirin ñel way rëylu ña aha kay wayu najji def na musallaahu yàlla waaye wayu najji dana musallaahu yàlla si na nga xam ne ittaqaw teet nañ bokkaale ittaqaw teet nañ mbugalam ma bi mafasatihim ci seen place ya mooy seen place u taxawaay ya masdarum mii mi yàlla parce que place ba nag mooy indi loo xam ne laa yamassuhum du leen jotale suu du leen jot su suu ñaawteef wala hum déet ñoom yax yax sanoon na ñuy jàq yàlla nañu yàlla boole ci ñii kon yàlla ngóog mi ngi santaane ñun ñëpp ñu daw dellu ci yàlla def inaabatu batu nag li muy foor foor inaabatu moo ko gën a foor mooy dellu ci yàlla dellu gu wér gu wér sell ànd sa cër yëpp sawar ca ànd ak sa xol ba dal ca na ngeen sellal jëf jëf lu mu bëri bëri bu sellut man yàlla soxlahuma inna allaha xaalisun laa balu illa xaalisan def leen ko balaa mbugalam yàllaa ñëw te foofa kenn ku leen di amut fa du yaay du doom du mbokk du xarit na ngeen fexe ngeen topp li gën a rafet ci li ma wàccee te mooy téere bi yàlla bii di alquran ngeen koy jëfee def ndigal yi bàyyi tere balaa leen mbugalam yàlla maa ñëwal ci bettaange te moom ci ñëw ci ñëw rek bettaange rek lay doon ku dee rek dee ci betteel lay doon ku dee rek bàyyi ngay procès yu bëri yàlla xiraa tamit ci mbetteel rek lay ñëw waaye naa nanga maa ngi toog di xaar dee koy def mbetteel rek lay ñëw su ko defee nag nga taxaw naan suma ma yàlla gindi woon yàlla ne ah kay gindi naa la joxoon naa la alquran yónni woon naa sama yonantu yi soo leen toppoon tey su boobaa da nga texe yàlla ne bu yowmal xiyaamee nag ña nekkoon ci ak texe at bu ñuy dekki seen xarxaram ya day ñuul kokku ñu texe ña nag wax na ko ci beneen aaya seen xarxaram ya day weex tal yàlla musal ñu ko ragaloon ci safara jox leen place boo xam ne amul dara lu leen di naqari mbaa lu ñuy tiit leen fay fekk jàmm rek ak xéewal ca la ñu nekk yàlla ñu ci yàlla boole aaya ji tegu ci yàllaay wane ne asamaan ak suuf li ci nekk ci ay ndàmbu xéewal ak wërsëg lépp man yàllaa ko yore maa koy jox ka ma neex muy lahoo maqaalidu samawati wal ard Usmaan mos na koo laaj yonentu bi lu muy firi yonentu bi ne ko yaa ma ko njëkk laaj ci saxaba yi maqaalidu samawati wal ard daal mooy subhaanallah walhamdulilahi wala ilaha wala akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim ab julit war na fexe di bëri lu muy jàng loola su koy jàng di ko bëril yàlla dana ko jox ay xéewal ëllëg àllaaxira ba mu doyal doyal bëri looy jàng subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi al aliyil azim te mooy di bàkk yàlla moo tax ñu bëgg julli goo julli su nga nga nga nga sàbbal yàlla subhanallah walhamdulillahi wallahu akbar benn bu ne fanweeri yoon ak ñett muy téeméer bu manqué benn nga mottalee ko laa ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ba ba mu jeex mu téeméer ba door a mat loolu boo koy takkoo yoon wu nekk nga def ko xiiw wu rëy julli goo julli wax loola lu rëy rëy lay doon euh, muy mooy baqiyaatu saalihaat mooy yu xiiw yi nga xam ne day des mooy way des yu xiiw yi loolu nag waxoon naa la ko la ko taxoon a jug mooy ñu ñàkk ñi rek bi yàlla santaane xare ñoom mënuñoo dem amuñ lu amuñ lu ñu waajalee xare ba yàlla santaane màkk mënuñoo xaji yàlla santaane sarax mënuñ koo joxe yàlla santaane asaka mënuñ koo joxe waaye dañ koy laaj sax ñooñu bu ñu xamut escalier bu ñu yéeg dañ leen raw di ñu ñëw ci yonent bi ne ko nag borom xalal yi di milliardaires yi yóbbu nañ aljana ji bàyyi ñu zahaba ahlu dusuur bil ujur yonent bi ne kaay leen ma dee leen ay baat su ngeen julleetee rek wax leen ko lépp luy xalal di def ñu ko cay def yàlla di ko nangu su ngeen waxee baat yi gannaaw julli rek da ngeen xam loola ah, mooy muy bàqiyaatu saalihaat su ko defee ñoom tamit ñu koy wax rek ba yàgg ñu koy manifesté borom xalal ya dégg ko tamit di dañ ko toppandoor ñu ñëwaat ci yonent bi ne na gaa nga ne la yàlla kon nga xam ne kon loolu daal dëgg-dëgg baax na kon yow boo boolee kon lañ say déggee kenn ku ne na muy jaamoo yàlla ak na moromam di jaamoo yàlla duñ benn yàlla bindut kenn nga mën koo jaamoo ci lépp kenn mënta jaamoo yàlla ci fépp diine yàlla ji tamit kenn mënu koo féetee fépp day am foo ko féetewoo sa morom féetewoo ko fale nga jaamoo yàlla fii féetewoo ko fa kee féetewoo ko fale waaye mënoo nekk fépp ki nga xam ne yàlla jox na ko alal loxoom jot gannaawam ba mu am loo ëpp soxlaam jaamu yàllaam nekkatul naafila guddi naafila weeru koor baax na waaye moom waru caa bokk xam na lu gën a for naafila yi su boobaa moom daal na seet hittewoo quartier bi ak mbokkam yi ña ca néew doole mu leen di yónnee alal di leen dimbale te yàlla tax kooku moo ëpp naafila téeméeri junne yoon téeméeri rakkaa ci guddi gi téeméeri junne yoo yónnee sa mbokk yi moo ëpp téeméeri rakkaa ci guddi gi yow mi xam xalal dimbale tamit yàlla may ko daraja ba darajaam ja mën na caa diri waale ñu bëri naa fi la guddi baax na waaye dimbale ca darajaam jooge ñu seen daraja jotewut ca foofa mu hëpp doole ci moom naa fi la ki yàlla may mu am xam li hëpp doole ci moom naa fi la mooy jàngale te fekk tamit na yàlla rek tax ki yàlla may relation nga xam ne lu nekk bu tagee mën na koo tàggarti mën naa fexe ba lu bëri jokkoo kooka relation booba mu cay jokkale ña jotiwut moo hëpp doole muy naa fi la guddi bu ko defee nag naa fi la guddi moom li ko gën a tax a jug daal mooy ñu néew doole ñi rek soo néewee doole nag moom del la guddi ndax loolu rek nga dese yow mi xam nii yëpp nag booy def loola boo ko naafila guddi nga xam ñaari fay ñaari payoor loo xam doole la moo tax ak ki am alal joxe am na ci am am na doole lool euh, ku mel ni xam nga Seydina Ousmane bi yonentu bi war a dem xarib Tabuuk joxe na rendez-vous bëggul mu foosé te alal moo fay dem ta alal ja teewut fa mu yónnee na nu waaye am na ko andi Ousmane indi alalam ju bëri jóge di junney waruwaay ak la ca nekk ca teg ya ci alal lépp ak jumtukaay yaag yépp mu ne maa la ko jox yow yonantu bi yonantu bi kontaan bég lool julli gee rek naafila rek safa witar rek commencé di ñaan allahuma ya allahuma Ousmane allahuma aati Ousmane allahuma aati Ousmane fa la nekk fa la nekk fa la nekk ba fajar xar ganaar gi sap yonantu bi ne laa yadru Ousmane maa faala baada al yawmi Ousmane mën ta defati lu ko lu ko lu ko lu ko lorati lu mu defati tamit aljaana la jëm xam ngeen ne loola xalal baax na de ni'mal maalu fii yadi fii yadi rajuli rajuli saalih xalal ju baax baax na ci ku baax mu koy joxe ci lu baax kon suñ bàyyi Ibou Sakho daana ku nett leen nu rafet rafet daana wax ne loolu xam nga ne naafila guddi mënu koo maye de jàng alquran mënu koo maye de waaye yëkkati xalal joxe loola moo ko may ku toll ni yonantu bi guddeeg lëmm mu koy ñaanal jënn jëmm te xam nga ne yonent bi benn seconde ku nga ko ñaanal sa àdduna baax na sa laaxira baax na guddeeg lëmm mu koy mu def ko ci kenn nit ba ne kii lu ko mën a lorati amut lu mu defati moo xam xal jaana la jëm nga xam ne kon ki xam xalal bu bëggee xam loola buntu ba tëj tëjuwul de ma nga tijjee ko ba tey ñu néew doole ñaa ngi fi say mbokk lañ say jege lañ say jege ñaale lañ nga dimbale leen te yàlla tax waaye nit ñi nag léegi e, jël seen xalal di ko yóbbu ci lu leen di bàkkee rek yóbbu ci luñ koy tiitaroo rek di leen bàkk dem taxaw fenn di battre ay 10 000 ba mu mat ñaari million di baatare ba mu mat fukki million te yaa ngi rombe daaray alquran yu yalwaan yaa ngi romb sa koñ ba jàkka yu parewut yaa ngi romb sa néew doole say mbokk yoo xam ne bu ñu aññee duñu reer waaye bàkk gi ñu lay bàkk soraanoo ak yeneen place ya rek loola doy na la sëkk nga xem ca loolu xam nga baaxut musiba la te bari na léegi ci suñ jamono ji te ñaareel ku mel noone boo demoon laaj ay mbokkam wala nga laaj soxnaam wallahi boo ko taggee ba koy gaayay tagg ca soraanoo yeneen place ya su bu bu bu jabaram amoon sémmañ xaañ la yow yow mi koy tagg ndax jéppi la du jeex kon yooyu yëpp maanaam lu jar a bàyyi xel la lu jar a bàyyi xel la maanaam ñi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax su ko defee kon nag aaya yaa ngóog moo tax moom yàlla tofal ci loolu ne lahoo aji nekk la lii du sama samaawaati caabi ndambi juróom-ñaari asamaan wal ardi ak caabi ndambi juróom-ñaari suuf lépp yàllaa ko amee walladina ña nga xam ne kafaroo weddi nañ bi ayat lay ci ay yàlla yi ulaayka yooye gaay yi hum ñoom alxaasiru ñooma ji way perte ña bu la neexee nga xasru ko qul waxal na leen ataamuroo nii ndax da ngeen may digal abuda man pour man ma jaamu xayrallaahi ku dul yàlla da ngeen maa bëgg a digal ma jaamu ku dul yàlla ayuhal jaahiluuna yéen ñur yér ñu du ma ko def ndax wala qad uxiya wallaay sa dëgg-dëgg wax yoof na ilayka jëm ci yow wa ila lazina ak jëm ci ñi nga xam ne min qablika jiitu woon nañ la ne la in ashrakta soo bokkaale woon ci nattale la yaxbata na dana sippee ko amalu ko sa jëf ji wala takku nan na da nga nekk maanaam minal xaasirina bokku ca way way perte ña kon bal li fi nekk laaha yàlla dong faabud na nga ko jaamu wa kun na nga nekk mina shaakirina bokku ca ngay sant yàlla de kon yàlla lii bu ko waxee yonent bi fu ñu jëm kon bu ne ku bokkaale yàlla boo bokkaale woon yàlla sa jëf sippeeku li muy tekki mooy waxal sa xeet wi ne suñ bokkaale yàlla seen jëf yi sippeeku ndax yonentu mënta bokkaale yàlla moo tax sax mu def ko siratul maadi soo bokkaale woon yàlla te li passé mosu cee bokkaale yàlla waaye waxut ko ne ko su fekkee da ngaa bokkaale yàlla ci luy ñëw kon moom ga ni mu ko garanté ci li passé ni la ko garante ci liy ñëw waaye nag ñi amul garanti bi mooy ñun ñi li muy tekki mooy ku ci bokkaale yàlla li nga amoon ci lu baax yàqu yàlla nee na ku ma bokkaale ma mbugal la ku ma bokkaalee torox nga ba mel ni ku ñu yëkkati ba ci niiri asamaan ya ñu daane la ba ñu la daanee maneen picc mu mag ñëw fëkk la daw ak yow daanu ci asamaan doy na torox maneen picc ña ñëw xenu la di daaw di naaw ak yow nag loolu tamit doy na torox maa kaannamaa mi na samaay kon loolu jar na bàyyi xel euh, loolu yëpp bokkaale lu bon la bokkaale nag dana nekk ci wax dana nekk ci jëf dana nekk ci pas-pas sa xol bi saa yoo ci utee yàlla dendandoor jàppee ci ko xam ne mën naa jeexital dara mbaa mu mën a def dara wala mu mën a dindi dara nga gëm ko rek bokkaale nga yàlla léeg-léeg nit feebar jël feebar ba am ñu ko jiiñ dañ maa liggéey nangam yi la nangam ni ma koy waxee toujours rek ku dee yàlla la rey waaye am na gox yoo xam ne ba fa yàlla gëjee rey kenn xamul kañ la ñu ñàkk noona ñi feebar ñooña waaye yëpp am na ñuñ ko jiiñ loolu lépp xeet la ci bokkaale nga gën ci yàlla gën ci sab sëriñ bokkaale la kuy gëñ da ngay gëñ ci yàlla bu jeexee nga noppi waaye jékki-jékki gëñ ci sëriñ di waññe da ngaa xiir bokkaale la yonentu nee na Omar a ko nettali dañ yonentu fa ñoo fekkoon ñi gëñ ci suñuy baay mu ne bàyyi leen fi seen bàyyi gën ci yàlla man kaana xaalifan fali yaxlif billaahi aw li yasmut moo tax boo fi toogee di jaay xiir bay gëñ ci sëb sëriñ sëriñ ba ngay gëñ moo la gën a jéppi ndax wéetalkatu yàlla la te ku wéetal yàlla bëggul ko bokkaale yàlla ci yow kon kuy gëñ da ngay ci yàlla rek bu jeexee nga noppi yonentu mos naa toog benn waay ñëw di jaay xiir ne ko bëgg naa def dara bu neexee yàlla ak yow loola bokkaale la bu neexee yàlla ak diw léegi sax ñun suñ bokkaale xeg na ki da ngay dégaase yàlla taxawal sab sëriñ loola bokkaale la yonentu ba waa gi ne ko bu neexee yàlla ak yow yonentu bi ne ko ajaaltani lillahi niddan qul macha allah faqat ah da nga may def yàlla may dend ndooram ak ndendam ku dama ne booy waxati waxal yàlla kese bu ma bokkat bu ma booleti sa bokkale yi kon loolu ku ko wax ci sab sëriñ sëriñ ba wax na la ko nga ñàkk koo yëg ñàkk yëg waaye léegi nag suñ jamono mooy def bàkkaar ba la gën a rëy def say ñaaw teef yi gën a rëy jël sab sëriñ di ko ko foye naan signé ko loolu moo bari léegi te yooyu yëpp ay caaxaan la te ñu miin nañ ko ba nga xam ne tabaarakallaahu la ca ne kenn mënu koo wax waaye su boobaa tamit nañ nañ nit ñiy wax rek na nit ñiy wax tamit di ci yéen nit ñi rek bu yàggee ñi xam ndax nit ñi bëgg nañoo baax moo tax mu ne wa maa qadaroo gëddaluñ laaha yàlla xàq qadrihi dëggi dëggi yàlla kenn mënu koo jox gëddam loo ko jox des na wa maa qadaru xamuñu laa yàlla xaq qadrihi dëgg-dëggi xamam wal ardu suuf si juróom-ñaar jami'an bi bu muy mboole seen xabdatuhoo ngëbinu yàlla la yawmal qiyaamati keroog bis penc wa samaawaat mbooreem juróom-ñaari asamaan yi matwiyaatun luñ leem la bi yaminihi ci kartanam subhaanahu tudd na ma sellam wa taala jomb na amma yushrikuuna walis liñ koy bokkaale yàlla bëggul kenn bokkaale ko wa nufiqa walee fi suuri ca bufta ba wal gu njëkk fa saxiqa dee man fi samawaati mboolem ñi nekk juróom-ñaari asamaan wa man fil arde mboolem ñi nekk juróom-ñaari suuf illa man sha allah lu dul noo xam ne neex nañu yàlla su ma nu fiqa topp waleef wala ñaareel fii ci moom fii ci moom oxraa geneen fa isaa ci mbetteel hum ñoom mbindeef yi xiyaamun way taxaw lañ yanzuru na ñu ngay xool lu ñu war a def ci ñoom kon dafa ne yàlla kenn mënu koo jox gëddam dëggi dëggi gëdd loo ko jox rek am na lu des ku mën a gëddal yàlla xamut su ko defee tamit nag asamaan seeg lépp ci kartanam dafa def maanaam istiaaratu tamthiliya ni nga xamee ne yow mii na nga jëlee sa caabi gi tëj sa buntu bi ba pare dugal ko ci sa poos maa nga teeg ko ci sa loxo ci waxin asamaan ak suuf bu yowmal qiyaamee noonu lañ koy leemee ak li ci nekk yépp ci ay géej yàlla téel ko boppam mi ngi koy saxalal ndeyjoor ci waxin comme ñun liñ xamee ndeyjoor te ndeyjoor mooy loxo bi gën a am doole ci nit ki waaye yàlla nekkul fa di am ndeyjoor ak càmmooñ moo tax kartanam rek nga koy firee su ko defee tamit moom kon moo def loola njëkk bi malakal euh, israfil wal ko si lay ñëppuy dee amul kenn ku fiy des ba mooy ñeent jibril ak mikaayil ak israfil ak malakal mawtu ñoo fiy des moom moom eh, fa sayeqa man fi samawati man fil ardi su ko defee nag yàlla laaj jibril euh, ñu fi des agum ñoom tamit ñu limal leen na ñoo ñoo fi des yàlla roof dee jibril ak mikaayil ñu nekk ñaari ponkali montagne yoo xam ne seen ak ba ñu ba ñu daanoo da ngay fa ne asamaan see daanu bañ leen roofee dee su ko defee tamit yàlla door a roof dee malakal mawti mu des nag israfil nag yàlla ne ko ku fi des mu ne ko sa jàmbu xeebu bii moom nag yàlla door koo roof dee ñeen ña ne ke yàlla mujj a roof dee mooy jibril su ko defee lu ci mun di am nag ñoom ñooñu ma ma tudd ci diggante ñaari walu bufta yi ci la ñu door a deexee waaye duñ deexee ci wal gu njëkk gi diggante ñaari walu bufta yi ñeen fukki xat la yoo xam ne ñëpp da ngi nekk seen bàmmeeli jàmm rek même texewul sax ci jàmm la ñu nekk nelaw yu neex doo am benn jafe moo tax soo bëggee nelaw dence ko ba booba da nga dem jaamu ji yàlla su ko defee ti foofa jaamu rek amul benn problème moo tax bu ñu leen xeeyee rek ñu ne mam baasanaa mi marqadina haza kan moo ñuy xekki suñ place nelawaay bi jaamu ji nekkoon yàlla tawlu tawam mën niyu ci bàmmeel yi su ko defee nag nit ña nag mel ni pompiteer buy sax te seen téere nag tabaarakallaahu jëm ca péncam yàlla ma diggante wal gu njëkk gi ak walu ñaareel gi ñeen fukki at lay diire ko defee tamit nag ñeen ñene illa macha allahu jooju mu setti mooy xuuru ayni ya ñoom duñ dee ndax na leen bind ngir ñàkk a dee ñoom duñ dee mukk xale ya yàlla bind ñi ay waxambaane di di bëggal waa aljaana yi seen taar ba alquran tuddee leen wildaanun mu xalladuna ñooñ duñ dee am nañu ne ñooñaa moom loola waaye li gën a wér daal bañ ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom waxoon mooy jibril mikaayil israfil asrail ñoo ngi ñooy mujj a dee ñi ngi deexee ci diggante ñaari diggante wala bufta yi su ko defee na ñëpp dee dee moom kenn du ci mucc dee mi rayee sax dana dee dee moom buñ demee ba dul suñ loos ma aljana waa safara safara yàlla indi dee netaal ko ci melam aw am am kuy am xar xaram tabaski ñu jël ko rendi ko ci diggante aljana ak safara na hee yéen waa aljana ci bànneex ci xéewal dootu leen deeti dee mi doon rayee ngi nii rey nañ ko hee waa safara ci mbugal ci naqar ci coono dootu leen deeti dee mi doon rayee ngi nii rey nañ ko waaye feeg dee deexagut kuy dund na nga dee su ma laa yëmootu fiyaa walaa yax ñu walee bufta bi nag suuf njëkk a xotteeku mu génn mooy sayduna muhammad moom wax na ko muslim moo indi hadis bi mu ne man la njëkk a xottil suuf ma génn waaye loolu mooy buy ci nit ñi bu fekkee nag ci mala yi la mala bi nga njëkk a xottil suuf mu génn dekki mooy buraaq buraaq bi mu waroon rañaan ni moom la ñuy xottil suuf mu dee mu dekki taxaw ci kanam yonent bi yonent bi war caa war nag jëm péncam yàlla ma moo tax mbooleem mala yi rek dahaba bu ñu tuddee buraaq moo ci njëkk a génn su ko defee tamit nag ki njëkk a buy ci wàllu malaaka yi bu ñu walee bufta bi malaaka mi njëkk a dekki mooy israfil ndax lu waral moo war a walaat bufta bi nag moo tax moom moo war a njëkk a dekki su ko defee nag bu ñu demee ba ñëpp dekki nag kenn ku nekk téye sa téere ndeyjoor ñii càmmooy raflehu kenn du sol yére góor ak jigéen kenn du tal sa awra waxuma la awlaay sa morom sa bopp rek ñëpp daw dëgmal jëm péncam yàlla ma xamul sol dàll amul sol tubay amul sol garambubu amul mbaxana ñëpp ufaat rufaat ah, um, um, maanaam uraat ufaatun uraatun dañuy fàndaañu dañuy rafle su ko defee nag bañ demee ka njëkk a solal tubay mu sol yére mooy sayduna ibrahim ndax moom moom la njëkkoon a summi di ko jéem lakk ca safaraaw yàlla wa moo tax tamit moom la ñuy njëkk a solal suñ demee nag ba yàlla teg baskil bi ñu war a peese ki muy njëkk a xoo war koo njëkk a atte mooy sayduna noox ndax mooy moo njëkk ci yonantu yàlla yi buñ ko wooyee nag ma ngay rab rab bi commencé di lox tiit xam nga gaay yi teg dossier bi rek siis bi ñëw commencé atte premier dossier bi ñu ba ba njëkk war a atte woo seen gaaya dañuy tiit su ko defee nag noox la ñu njëkk a pour atte ko su suñuy atte nag la ñuy njëkk a teg ci bascule bi pour peese ko mooy jikko ju rafet poids poids jikko moom la ñuy njëkk a teg moo tax jikko ju rafet am na solo lu jara lu jara baxi xel la jikko ju rafet nag ba ca gën mooy ku bañ nga bëgg ko ku la dog nga jokk ko kuy seddale xeñ la yow booy booy booy séddale jox ko ñett ku ko am rek am nga makaarimul axlaaq mais ndaw lu jafe ku ko doon def ki ci jamono jukkiwoo ko dañuy wax ne xamoo fulla moom bëggul dara amul benn fulla loolu rek lañ lay wax waaye ñàkk fulla ci nit ñi te am fulla ca yàlla moo ëpp solo lu jar a bàyyi xel la kon jikko ju rafet la ñuy njëkk a peese moom la ñuy njëkk a teg ci bois bi li ñuy njëkk nag xisaab mooy julli su baaxee lépp baax donte am na lu bon bu bonee lépp bon bu julli bonul rek bonee rek ñu ne xay comme julli mi gën a yomb kay baaxut moom fii la ñuy yem mais buy wàllu xatte nag la ñuy njëkk a xatte dossier bi ñu njëkk a xatte mooy wàllu tour deret rayante gi agression bi fi xew ku rayoon nit ba yowmal xiyaamee sa dossier la ngi njëkk a atte dossier ba nga njëkk a atte ci ñu dee ñi tamit mooy Seydunaa Xuseynu ña ko rey moom la ñu njëkk a teg maanaam xatte ko door seet nag deret yi kon bis boobu jar naa liggéeyal de jar naa bàyyi xel yàlla nañu yàlla bool defal tawfiq defal ñu tay siir defal ñu naataange ak barke moom lay wax si nii moo tax mu ne wa asraqati jolli al ardu suuf bi nuuri rabbiha ci leer ak boromam mooy dëgg taxaw rek la bëgg a wax neen dem wa wudia tëraleef alkitaabu téere jëf ya wa andeef bi nabi ci yonantu ya wa suhadaa yeeg way seeda ña te mooy xeetu sayduna muhammad wa quddiya xatteef baynahum seen diggante bil xaq ci maandu wahum ñoom nit ña laa yux deefu tooñeef leen ba leen ni yokkal luñ defut mbaa ngi leen ni wàññil luñ def wa wufiyat mataleef kullu nafsin bépp bakkan maa amilat li nga xam ne jëfoon na ko de wa huwa moom yàlla axlamu aji xam la bi maa yamal bi maa yafal li nga xam ne ñu ngi koy jëf bu ñu xeggee fii nag xattee dëgg war a taxaw ni ñëpp indi seen téere jëf ya soo ñëwee yenoon bi teew xeetu yonent bi teew yonent ya seede seen xeet ya xeetu yonent bi dëggal ko ñu ne yéen yéen yéen yéen ñu mujj ni ngeen ñu mën a dëggalee ñu ne yàlla wàkkee ñun téere boo xam ne lépp lu ngeen waxoon baa ngeen jëf ko téere bi waxal nañu ko ne yonent yi wax nañ dëgg yéen nekkoon ci caaxaan su ko defee nag ñaxatte nit ñi nag bakkan bu ne lu baax ak lu bonam dana mat sëkk dara du wàññeeku nag xam naa loolu li koy war a détaillé dana dana bëri waaye bu subaa ñu commencé rek ci wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha ndax waxtu wi mi ngi ñuy dab lu ci leer rek yàlla la lépp lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaa la yàlla nañu yàlla bool defal tawfiq yàlla nañu yàlla bool defal taysir yàlla nañu yàlla bool defal naataange yàlla ngi ci xamal ne bu àllaaxira dëgg rek ay taxaw li lu lëndëmoon lépp leer li nëbbuwoon yépp feeñ su ko defee kenn ku ki nekk ci jaami yàlla yi ñu jox la sa téeréeb jëf soo ñëwee ñu ne la jàngal yaay atte sa bopp iqra kitaabaka kafa bi nafsika yawma alayka xasiba nga xam sa not yi nga am ci lu baax xamal sa bopp not yi nga am ci lu bon su baaxee nga kontaan ree di ko wane say bokk su fekkee note ya baaxut nga jooy yooxu te fekk kenn dóorut la fekk yonent yëpp a ngi teew ak seen xeet bi yàlla ki muy njëkk a rappel mooy yonentu yàlla noox mu ne ko yow Jibril nee na andiloon na la message bi ma ko yónnee woon muy risaalatu ak nubuwatu ko mu ne ko wax na dëgg sa nit ñi bi nga leen ko andilee luñ wax ak luñ def mu ne ko ñoom daal dañ maa weddi comme ni nga ko waxee ci alquran rek inni daawtu qawmi laylan wa naharan fa lam yazidhum duaaya illa firaaran léegi nag mu xoon itam ngeen leen lu tax ngeen weddi yonentu yàlla noox mu ne weddi wuñ ko ñu ñu miim yàlla yonentu yàlla noox nag yàlla ne ko kuy sa seede mu ne ko sayduna muhammad mooy sama seede ak wii ñooña ñëw nag war a seede xeet wa timit xeetu noox wa ne ko ñii naka lañ ñu mën a seedee te ñun ñoo leen jiitu fekkee su suñuy xew-xew fekkee su ñuy jëf ñoo ñooñu ne ah kay yonent bi wax xeetam nga wax ne ko ah kay mën nañ leen a seede ndax yaa wàccee woon si ñun téere boo xam ne lépp luñ mos a wax mbaa ngi jëf ko rek téere bi jàngal nañ ko muy alquran moo tax bu keroog yowmal xiyaamee yonent bi mooy seede yeneen yonent yëpp gisee nag jotal xeetam wi tamit ñooy seede loola. alquran wax na ko fa kayfa ida jina min kulli ummatin bi shahidin wa jina bika ala haulaai shahida wax na ko ne ummatan wasatan li takunu shuhada ala nnaasi wa yakun rasulu alaykum shahidan bu ñu leen seedee ba pare yonentu bi seede ñu ne li ñu wax dëgg la loolu nag lay bëgg a wax si nii moo tax mu ne wa ashraqati jolli na al ardu suusi bi nuuri rabbiha ci leer ak boromam te mooy dëgg fés na rek wa wudia tëraleef alkitaabu téere jëf ya wa ji a andeef bi nabiyina ci mbooleem yonantu yi wa suhadaa yi ak way seede ñi way seede ña malaaka ya ca lañ bokk di kiraaman kaatibiina ya way seede ya xeetu sayduna muhammad ca lañ bokk wa quddiya xatteef baynahum seen diggante bil xaq ci xatteem maandu wahum ñoom nit ñoo nga nag laa yuxlamuuna defut tooñeef leen ba leen di yokkal luñ jëfut mbaa ñu leen di wàññil luñ jëf wa wufiyat mataleef kullu nafsin bépp bakkan ma amilat la mu jëfoon wa huwa moom yàlla nag la mu aji xam la bi maa yaamalu li xam na ñu ngi koy jëf de waaye buy saxalak seede dafa bëgg ak maandu rek waaye lañ jëf yépp xam na ko kon aaya jàngoog wax na ne bu yowmal qiyaamee lépp leer li lëndëmoon leer li nëbboon feeñ ma yawma la sarairu fama lahu min quwatin wala nasirin su ko defee tamit ñi teewal ndax nit ku ne ba nga defee ba dee rek sa jëf ji doon jëf enregistré nañ ko ci sa doq gi su ko defee bu yowmal xiyaamee rek boo dekkee mu soppeeku téere ba nag nekk ab téere ñu jox la ko boo texee sa ndeyjoor boo texee dee sa càmmooy soo ñëwee ba wéet ak yàlla ba nga foog na yow rek la mos a bind mu ne la jàngal sa téere bi mooy wa wudia kitaabu su ko defee nag nga jàng eh, wane ne not yi lii laa ci am mu xoo malaaka yi nga xam ne ñoo ko bindoon timit malaaka yi seede ne nii la demee ñu vérifié ko ca lawhul mahfuz bi ñu ko doon bind gannaaw biñ ko enregistré foofa loola tamit seede ne not yi nga am loolu lépp day am fu mel ni yooyu yëpp danay feeñ sax ci ci ordinateur yi li nga ci dugal yëpp boo ko ko laajee rek mu jox la ko la la la nit ki seede woon wax ko mu tombeeg liñ enregistré woon ci ordinateur yi commerçant yu bari bu ñuy jaay buñ la bindalee facture dañuy mujj enregistré facture ba ci ordinateur bi su ko defee boo ëllëgee boo ñëwee nga ne facture bëgg a miim ñoom tamit ñuy bës ordinateur bi rek mu génnee bis ba ak waxtuwaak lépp somba ni mu tolloon soo ëllëgee nag dernier delluwaay bi mooy lawhul mahfuz moom tamit lañ wane woon yépp mu wane ko lépp tolloo su ko defee tamit nag waaj a bëgg bëgg a daw nangam ak nangam yàlla woo xeetu yonantu bi pour ñu seede ñooña sallallahu alayhi wa sallam buñ paree tamit yonantu bi seede xeet wi ne li ñu wax lépp dëgg la su ko defee nag bu not ya baaxut nga war a dem safara nga téye sa téereb càm mooy jëm safara jéggi siraat surax soo waree dem haljaana sa téere sa ndeyjoor su ko defee nga jéggi siraat am na ñoo xam ne kam xafa xippi ñii comme avion ñii comme ay 4x4 ñii comme Mercedes ñii comme sareet yi ñii comme vélo yi ñii ñoom dañuy yéex ba ñooy gën a sax yéex doxinu mbott kenn ku ne daal yaa ngi koy jéggi rek kem ci sa jëf yàlla ne foofa tooñ amut fa kenn ku nekk note yi nga am rek lañ lay jox atteeb doomu aadama bu mën a doon nag tooñ mën na caa xam man ngaa yokkal nit ki lu mu defut man nga koo wàññi lu mu def waaye a atteeb àllaaxira note yu ñu la jox rek moom nga am foofa nger amu fa dara amu fa lu fa yàlla attee loola la moo tax mu wax loolu kon bakkan bu ne dañ ko matal la jëf moo tax mu ne wa ashraqati jolli na al ardu suusa bi nuuri rabbiha ci leer ak boromam wa a tëraleef alkitaabu téere jëf yi wa jiya andeef bi nabi yi na ci yonantu yi wa suhadaay ak way seede yi wa qudiya xateef baynahum seen diggante bil xaq ca atteem maandu wa hum ñoom tamit laa yox la mën a deefut tooñeef leen ba leen i wàññil luñ defut ba leen i wàññil luñ def mbaa ngi leen yokkal luñ defut wa wa wufiyat mataleef kullu nafsin bépp bakkan maa amilat lam jëfoon wa huwa moom yàlla alamu aji xam la bi maa yeefal li nga xam ñu ngi ko doon jëf de koy tëgg-tëgg ak ismu faa'il aaya ji tegu ci nag gannaaw xatte tey ñi am not yu bon ñi war leen a màng rungu leen jëmee leen safara moom lay wax si bu ñu leen rungee nag rungab gañ-gañal lay doon mi ngi mel ni rek waa ji yore ay gàttam di ab sàmm moo xam ka ca caawa ga ca xar ya wala bëy ya wala nag ya nam yoree yet ya topp leen rek di dóor ñiy tàncaloo di dëggante muy dóor rek mayul leen fenn fu ñu yàkkee seenam nakk boo lëggee tamit ña jëm safara noonu la leen di malaaka yi di rungee ñu ngi leen i ñi gañ-gaña rek ñi ñi ñuy fàddante di dalante di dëggante ñoom noona kuréel bu dugg rek sa beneen beneen kuréel ba ñëw ndax dañuy màng nit ñi kem bàkkaar yañ doon moyee day am délégation boo xam ne njaalokat yi rek ñoo cay dugg ñii naankatu sàngara yi ñii délégation yi sàcc yi ñii bokkaale katu yàlla yi ñii ña wax ñi ne duñ wax dëgg ñii ñi doon rambaaje ñii maanaam tamit ñi doon jëw nit ñi ñii tamit ñi doon dagg ak bokk délégation bu ne ak melaw bàkkaar ba nga doon jëf bu dem rek ba beneen délégation ñëw noonu la ñu leen def yàlla ne bu ñuy ñëw rek ca saasa bu ñuy see nag la ñuy doole kàccit buntab safara ndax damay bañ hubbi ko ndax boo hubbee bunt rek dana xam lu dugg dana xam lu génn safara nag bëgguma dara dugg ca lu dul ñoom bëgguma dara génn ca muy euh, maanaam tàngoor wa ca ne boo ko hubbee mën naa génn ba tey tamit ngelaw li mën naa dugg te bëgguma dara dugg lu dul ñoom bëgguma dara génn ci tàngoor lu dul ñoom ñi fekk ko fa moo tax ba ñëwee nag dugg rek la ñuy door def kat buntu ba buntu ba nag juróom-ñaari buntu la laha sab'atu abwaabin min kulli baabin juz'un maqsuum su ko defee tamit nag bëkk néeg ya safara ya ki leen jiite mooy Malik moom ci boppam nag di leen di leen laaj ak turu malaaka yooyu bëkk néeg ne leen waaw yéen lu leen indi fii xanaa yàlla yónneewutoon ci yéen ay yonantu xanaa yàlla wàcceewutoon ci yéen ay téere ñu ne ah kay ñun daal li ñu fi indi yëpp texe xadi rek moo ñu fi tax moo ñu fi tax a ñëw bon rek waaye xamoon nañ yoonu baax waaye texe xadi jàppuñu ba mënuñ koo def moo tax ki yàlla bindee ci texe xadi jëf-jëfi texe xadi da koy yomb ki yàlla bindee ci texe jëf-jëfi texe da koy yomb kullun muyassarun lima xuliqa la la yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam loolu lay wax si nii moo tax mu ne wasiqa màngeef na alladina ña nga xam ne kafaroo wi dinañ yàlla ilaa jahannama jëmee leen safara zumuran ci kuréel kuréel gannaaw kuréel xatta ida jaawooha waxtu wa nga xam ne dikkal nañ safara futtihat door di hubbiloof abwaabuha buntam ya wa qaala wax lahum ñaal leen xasanatuha bëkk néegi safara ya ne allam yatikum ndax dikkalul leen hoon rusulun ay yonantu minkum yu bokku ci yéen yatluuna yonantu yooyu danañu jàng alaykum ci yéen aayaati rabbikum aayaay seen borom yi wa yundirunakum ñu leen di ragal loo woon ñu leen doon a loo liqaa yawmikum dajeeg seen bis bi haada bii xaaloo ñoom tamit ñi wax di saxal ne balaa aha kay yàlla yónni woon nañ ci ñun ay yonantu wàcce woon nañ ci ñun ay téere yonantu ya daan nañ ñu ragal loo bis bii de walakin li fi nekk nag xaqat dafa xëy rek kalimatul azaabi baata mbugal mi yàlla ne woon la am la anna jahannama moo xëy alal kaafirin ci xéeféer ki ñun sa lañ bokk xii la waxeef na nag ne udxuloo tàbbi leen abwaaba jahannama ci bunti safara yi di juróom-ñaari buntu xaalidina mbir mu ngi nettali seen ak béel fiihaa ci safara fa bi sa bon na maswal mutakabbirina saxuwaayu way rëylu ñi te mooy safara yàlla nañu ci yàlla musal atte baangoog ña gëmutoon kon war a dem safara nii lañ leen i rungee dox bi dana yàgg lool mën naa yàggee ni doxab juróomi téeméeri at nga xam ne jëmmi dox ba rek bala ngaa hegg rek coono la ba yaa ngi ne ngéej hegg fu ma jëm baax na doxa doxa dox ba sa tànk yi dagg doxa dox ba sa tànk yi nàcc sa tànk yi di futtu te fa ngay dox nekk lu métti di ay xeer ngay yéeg a a wàcc ci montagne yi ba hegg foofa ba ngeen demee ba hegg si bees rek su ko defee na ngi door di hubbi buntu ba loolu neex naa jàngale léegi ci kaso yi xam nga ne kuñ cay tëj duñ bàyyi buntu ba noonu porte ba muy bàyyi ñu muy bàyyeeku moom kay dañ koy tëj rek waa ngi téye caabi ja taxaw fa soo ñëwee mu ne kàccit ji su ko defee nga dugg rek mu puusaat buntu ba tëjaat ko safara tamit noonu rek la mel su ko defee tamit nag yonantu yi wax leen loola ñu tontu leen loola yàlla ne li ngeen tontu du fi jariñ tey d'accord ngeen reconnaître ngeen waaye fii réccu amatul fi njariñ dugg leen safar ngeen leen seen ak béel dootu leen génnati te dootu leen dund dootu leen deyaati yàlla nañ ci yàlla musal gannaaw bi mu waxee safara ba ñëpp jàq tamit beneen délégation ba jëlee seen téere loxoom nday joor ñoom dañ leen di gide rek waxee na ko siiqa ngir na mu waxee woon baat bale waaye nag ku ñuy wan waa ji nga xam ne tey dafa wàcc cim réew ca aéroport ba président yeble délégation bu ko war a tertu bu mën a doon ñu ñëw noonu gaar 4x4 yi gaare oto yi ñu ñëw nag war leen a gindi wan leen hôtel yi ngeen war a dalal noonu rek lay mel waaye ñoom màng giñ leen di màng ak jiital ga gu oyof lay doon amul benn coono te dox ba tamit du sori dañu dox tuuti rek maanaam yegg euh, aljana ba dem fekk nañ porte ba moom hubbi xaale woon nañ ko ba pare air bay dugg ak lépp loolu la wuutee même ak yi xam nga bunti hôtel yi ñi tere leen nit ñi boo demee ubbi nañ ngay dem rek dugg waaye bunti kaso yi moom dañ koy tëj da ngay ñëw ñi tijji nga dugg ñu tëjaat waaye nag buntu yooyu si des yëpp nag moom noonu lay mel moom lay wax nii moo tax mu ne wasiqa màngeef allazina ñi nga xam ne ittaqaw ragal nañu nañ rabbahum seen borom ilal janati jëmee leen aljana su ma ci kuréel gannaaw kuréel hatta iza jaawuha waxtu ba nga xam ne dikkaleef nañu aljana wa futihat mbir moomu hubbiloof na abwaabuha buntam ya wa qaala wax lahum ñaal leen xasanatuha bëkk néegam ya te seen seen njiit la mooy ridwaan ne salaamun jàmm aleykum nekk na ci yéen tibtun mbir moomu teey ngeen fa fadxuluha tàbbi leen ko xaalidina mbir moomu seen ak béel fiha ci aljana dugg leen aljana yéen du ngeen am benn porom benn problème su ko defee nag ñi wax leen loolu ne teey ngeen waqaaloo ñoom tamit ñi sant ne waqaaloo ñu ne alhamdu melowu sax ta rafet lillaahi ñeel na yàlla levi yàlla ma nga xam ne sadaqanaa dëggal nañu wax dahoo dëhalam ba wa awrasanaa donn loo nañu al arda suufu hal jana natabawwa'u ñu ngi saata gaay minal jannati ci hal jana xay su na saaw fu ñu neex fa neex ma baax na ajrul aamileen payoor ak way jëf ña te mooy hal jana yàlla nañ ci yàlla boole kon hal jana yàlla nee na ña ca war a dem dama leen di booleeg ay malaaka yi leen di accompagner ànd ak ñoom di leen wan di waxtaan ak ñoom di leen dalal su ko defee ba ñu dem rek ba yegg ca loosement yi fekk ubbi nañ ko nekk na juróom-ñetti buntu su ko defee tamit ñu ñëw fekk buntu yëpp ubbeeku nañ rang bu nekk tamit délégation ya bokkuñu ak buntu ba ñuy duggee ña nga xam ne dañoo fonkoon jàngal Qur'an am nañ spécial seen buntu bopp ña fonkoon julli mën ci ñëpp am nañ seen porte bopp ña doon woor man ci ñëpp am na buntu bu ñu duggee muy rayaan ña doon julli fay nange am na porte bu ñuy duggee ña doon toppatoo seen waajur ya di jokk seen mbokk ya di wax lu baax jël seen alal di dimbaleen néew ju doole am na porte bu ñu duggee moom daal kuréel bu ne ak porte boppam su ko defee bu ñëw fekk buntu yëpp ubbeeku na ñu dugg fa jël seeni logement malaaka yi nag di leen waxtaana la loolu bu ñëwee rek malaaka yi nekk ci biir tamit bu ñu leen dalal leen nuyu leen su ko defee nag commencé leen nag présenté dem ca biir dugg biir aljaana seet xuuru ay ni ne yow yow diw xuuru ay ni sa sa sa borom kër ñëw na sa borom kër ñëw na moom tamit mu bég nag defaru ba baax ak la ca war yëpp nag ñëw di la di la war laa dalal nag war laa yóbbu ci sa losement ba eh, ndax mboolem ñuy julli ajjuma gi jot mboolem julli ñuy dem juma seen portele ya dañ dañ koy taf ca buntu juma ya loolu tamit dafay affiché wu ca aljana su ko defee nag jigéeni xuuru ay ne nag di leen xool kenn ku ci nekk nag commencé di ne kii maa ko tippoo kii moom tànn naa ko muy sama jëkkër bañ ba ba ñu war a dem aljana yëpp nag jeex su ko defee ña nga tànnoon yàlla day ànd ak yow ca tànna ga sooy dugg rek malaaka yi dem wax yooya tamit muy soxna ya ne leen yow sa borom kër ñëw na ñoom tamit ñu ñëw nag tertu la yóbbu la ca loosuma ya yàlla nañ ci yàlla boole su ko defee kon nag aljana ngóog euh, danañ fa dégg kàddu gu neex salaamun aleykum danañ am ak teey ci seen jëmm yi mu ne tibtum su ko defee mooy bala ñoo dugg aljana dañ leen war a sang dañ sang ci am a déeg boo xam ne ba la piscine lépp lu nekkoon ci seen jëmm yi day dañ loolaay tax seen jëmm ya mën a attan teraangaay aljana yaa xéewal ya waaye suñ jëmm yi ku ci dugg aljana seey koo xam ne ñaareel sax boo ko tegalee boo taalee maanaam kilim bi bu seddee mu ne fayal kooku maanaam kilim bi moom foofa maanaam xalu safara la fa moo tax dañuy sang ba suñ jëmm yi attan loola bu ko defee tamit ñu nàndal ca déeg booba ba mbooleem xeeti jàngoro yu nekk suñ biir yépp dañ soxor ak añaan ak yépp du fa am wa nasaxna maa fi sudurihim min xillin ixwaanan loolu nag fa ñuy fañ fañ foofa la ñu nàndale moom la alquran ne wa saqaahum rabbuhum sharaban tahuran su ko defee la nekk ci biir ya tamit set wecc nga mën a attan xéewal yi ya nekk aljana sa jëmm ji set wecc boole ko wér amul feebar amul sibru amul tafli amul ñandaxu amul dara xeeti jàngoro yépp dañ ci yow ndax nga mën na attan tamit xéewal yu rëy ya nekk ya nekk aljana su ko defee aljana moom lan don rek la tudd mooy tekki rek xay jeex na soo fa demee xay moom jeex na ci yépp xayu siburu jeex na xayu ñàkk jeex na ayu feebar jeex na ayu lu la naqari jeex na ayu kàddu gu bon jeex na ayu gis lu la métti te mënoo koo faj jeex na lépp dafay nekk maanaam di bànneex su ko defee sant yàlla ngoog moom la moom la tëjee saar wi sant yàlla timit ruuxul bayaan mu ne moom la yàlla tàmbalee woon bind mbindeef yi ba mu bindee mbindeef yëpp dafa ne alhamdulillahi alladi xalaqa samaawaati wal ard ba mu demee tamit ba mbindeef yooye mu bindoon yoon wañ tegu woon ñu yam leen teg ñu nangu caa tegu bañ jox leen seen losement ci aljana tamit ñu tëjee seen wax gene alhamdulillahi kon alhamdulillahi moo tijji nit ci ci cosaanam waaye tamit moo koy tëj ëllëg ca biir aljana bala ñoo dugg aljana nag juróom mbenn sant moo dox suñu digganteeg aljana waxoon naa la ko daaw ca suratu fatiri ca ruuxul bayaan sant gu njëkk gi bu mbindeef yépp taxawee ca péncam yàlla ma xéeféer yeeg jullit ñépp jaxasoo nga gis benn ndëggoob xéeféer junney dëgg-dëggu ca ngir xataayu place ba nga gis ku ñaq ba ñaxam toll ko ci wóom kii ci ndigg kii ci baat kii ñaqam soppeeku géej mu cay sëmbu ñépp jàq su ko defee nag foofa yàlla day wax ne malaaka yi wax leen ñu bon ñi nañ génn ki ñu baax ñi wamtaasul yawma ayyuhal mujrimun foofa nag ñu bon ñi beddeeku génn loolu mi ngi mel tey boo demoon ci place bu nekk mu laaj raa da ngay dégg waa gi ne ana ñi am carte nañ demee nii kenn du leen ko wax ñooy génneel seen bopp su boobaa nag beddeeku gi ñu beddeeku ki ñu baax ñu baax ña des ca ñoom dañuy sant yàlla tamit foofa ne alhamdulillahi najjaana min alqawmi zalimin ñu de sant nañ yàlla mi nga xam ne musal nañu ki tooñkat yi bokkuñ ci muy première sant ñi continuer di dem ba yàlla dimbale ñu ñu jël suñ place ya suñ losement ci aljana buñ duggee tamit ñu ne alhamdulilah li hadana li hada wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah buñ demee tamit ba dugg mooy buñ bu ñuy dem waaye buñ demee ba duggu nag ci la ñu door a wax sant gi ne alhamdulilah li sadaqana wada wahdahu wa awrasana al ardana tabawwa'u mu ñetteelu sant gi buñ demee ba jéggi siraat da ngay tiit foog ne danga nga surax ndax place boo xam ne moo gën a ñaw lanset te moo gën a raglu jaanu ñàngoor ju ñu tooñ gaañ ko te maanaam deexagul muy fudd moo gën a lëndëm guddeeg oxset kenn ku ci nekk war ko jéggi kem sa jëf wa in minkum illa waariduha kaana man maq xatman maqdiyan su ko defee tamit nag booy jéggi da ngay tiit ak koo mën a doon yow nag bu la yàlla dimbalee nga jéggi amuloo benn problème ci ngay sant ne alhamdulilah alladi adhaba an alxasana sant nañ yàlla mi nga xam ne yóbbu na demee na suñu njàqare su ko defee ganeen sant gan ak booy boo demee ba jël sa losement xuuru ay na ya nga xam ne ñoo la doon tippoo kenn ku nekk ñëw sama jëkkër ñëw na mu ñëwoon ubbi buntu ba defar yëpp ba mu baax ne yegsil entrée yow nag nga door a sant yàlla gu mu jigéen ne alhamdulilah fi xalana daaral muqaamati su ko defee googu mooy dernier sant kon ñun ñu nekk bala nga dugg xal jana juróom benn sant dox na suñu digganteeg xal jana soo bëggee juróom-benni sant yëpp nga sant ko nag foo toll del sant yàlla jaamab yàlla fu mu toll day sant yàlla bañ di xalab yàlla bañ di jàmbatu bañ di tawat bañ di tudd jafe-jafe yi ku mënul sa bopp dara ki la mën a lépp da ko war a sant waaye nag jàmbatu yu bari yi baaxut waxoon naa la ko maam xalifa dafa daan wax ni àdduna bi jaana ko wër jaan ja ko wër nag wër mbindee fi yàlla yëpp lan mooy wërsëgam lu muy dundee mu ne mi ngi dundee wërsëgu jàmbatukat yi soo jàmbatoo rek ngi dagg sa wërsëg jox ko mu lekk ndaw jaan juy bëri wërsëg su ko defee jàmbatukat yi kenn xamul nuñ toll julit du jàmbatu lu métti métti rek euh, euh, waroo nekk di jàmbatoog yeneen yeeg yooyu waxal la yenentu yàlla yàqooba waxoon lam métti métti innama ashku bathi wa husni ilallah sama njàqare geeg sama tiitaange gi yàlla dong laa koy tawat waaye du ma ko dem di ko wax ket yàlla rek mu jeex kon nit day war a sant yàlla sant yàlla dafa takkoog nit ki jamono ju ne ñu bëgg nga nekk ak moom yaa ngi nii ba nga demee bay tëdd ñu ne la waxal tuddal turu yàlla mu mujj sa làmmeñ wi nga xeewu ndax bari na ku tëdd nelaw te xeewuut ba nga tëdd nga nga sant yàlla ci xeewu gi alhamdulilah alladi ahyaana baadama amaatana wa ilayhi nusuur sant yàlla mi nga xam ne rayoon nañu ray gu ndaw gannaaw si gi mu dekkil ñu dekkil gu ndaw su ko defee nag ñu mën cee mën cee gëmee dee ak dekki te dekki gi dëgg gu mag yëpp ca moom lay dellu loolu nga wax ko boo xeewoo bees su ko defee tamit nga dem dugg ci wanag wi boo demee bay dugg comme toile kenn du fa tudd yàlla boo demee bay dugg rek ci ngay tudd yàlla boo xasee i dugg dootoo waxati dootoo waxati bismillah nga jàpp jàpp ba pare ba nga paree nga génn maanaam sant yàlla yëkkati sa baaraam yi tiimale ko asamaan tudd turu yàlla su ko defee tamit maanaam sant ko ca ni ko yonent bi alhamdulilah lazi maanaam Eh, jaxal ni min at-tawwaabiin wa sant yàlla yàlla hubbi la buntu aljaana yëpp mu hubbeeku xaale moo tax am na ñoo xam ne seen aljaana yi hubbeeku na bu yàgg ndax loolu boo ko waxee rek Omar ibn Xattaab nee na yonent bi nee sa buntu buntu juróom-ñetti nga duggee ca defee tamit nga julli ba nga kàbbaaree harmal sant yàlla nga def ci jàng fatiha ci alhamdulilahi rabbil alamina nga sëlmal tamit nga sant yàlla ne awma kartan ci topp yàlla awma pexe mbaa sañ-sañ ci bàyyi mooy yàlla lii lépp yàlla laa koy sante moo ma ci dimbale ba nga demee bay lekk nga ne bismillah nga lekk ba pare tamit santati yàlla alhamdulillahi lazi at'amani wa ashba'ani wa asqaani wa arwaani beneen riwaaya ba ne wa saqaani wa arwaani ba nga ca bàyyee ko sol say yére nga sant yàlla alhamdulillahi lazi kasaani haada wa rasaqani min xayri hawli minni wala quwa demeet sant yàlla daal mooy gongi nit ki ci jamono ju ne ngay alhamdulilah saqarana hada ak oto boo mën a dugg wala waruwaay boo mën a dugg ba nga wàccee nga santati yàlla bari na ku ku yéeg te wàccut demeet moo tax foo bëgg a toll daal foo nekk rek delu alhamdulilah ala kulli haal maa ngi sant yàlla daal du mën a demee sant yàlla nag ñaari xaaj la sant yàlla guñ tënk ak sant yàlla guñ tinki hamdul muqayyad ak hamdul mutlaq imaamu malik ak shaafi yu coow nañ ci ñoom ñaar bu ci gën malik ne sant yàlla guñ tënk gën ndax al alquran ba alquran jeex sant yàlla guñ tënk rek moo ci ne Shaafi'i yu ne guñ tënki moo gën ndax giñ tënk la nga ko tënk dafa mel ni boo xamutoon yàlla xeeyewut sant Maalik ne alquran ba alquran jeex sant yàlla guñ tënk rek alhamdulilahi lu tax nga ne rabbil alamin te yow mi ko wax yaa ngi ci alamina yi alhamdulilahi si hadaana te yow mi ko wax yaa ngi ci muhtadina yi alhamdulilahi si najjaana te yow mi koy yaa ngi bokk ci ñun musal ñi alhamdulilahi si wahabali alal kibari ba yonent yàlla ki waxoon Ibrahima loola lépp kon sant yàlla guñ tënk rek te nekk ci alquran saafeex yu ne guñ tinkee gën ndax booy sant yàlla ngir wërsëg wala ngir yére wala ngir jàmm wala ngir oto wala ngir wér dafa mel ni bu la mayutoon loola xëyoowut sant ñoom ñaar ñëpp nag wax nañ dëgg waaye dañoo bokkul maqaama bu ñuy waxee ca diine loolu la waaye ñoom ñaar ñëpp lu ñuy wax la dëgg la saafee yu nag maalik ne tamit guñ tënk ci xéewal gu dul jeex moo gën guñ tënk ci xéewal guy jeex gi nga sant ngir li nga lekk boo reesee jeex na bi nga sant ngir sa yére yi nga sol bu ràppee jeex na bi nga sant ngir sa bâtiment bi bu bu boo jeex na waaye gi nga sant nag ci xéewal ak lislaam xéewal ak alquran xéewal ak sayduna muhammad xéewal gu dul jeex la sallallahu alayhi wa sallam maalik nee na maanaam kon googu moo gën yàlla nañu yàlla xir ñi di ko sant yàlla nag waat na ne ku ko sant rek mu dolli la la in shakartum la azidannakum waaye waat na tamit ne ku ko weddi mbugalam lu tar la baax a tax rek mu mënoon naa bu ko neexoon tey bu fekkoon yeneen buur yi la day wax ne ku ma weddi danaa la mbugal mbugal mu tar ndax loolu la jumla ja laajoon waaye mu ne ku ma weddi rek sama mbugal lu tar la wala in kafartum inna azabi la shadid waaye waxu ne su ween ma weddee ma mbugal leen la wa azibanakum azaban shadidan waxut loola kon nga xam ne kon yàlla buur bu baax la foo toll del sant sant yëpp nga di ko def yàlla euh, sant ci kii xéewale muy yàlla ak sant ci xéewal gim la jox sa sukkuru ñaar la sukkurul munimi ak sukkurul neexmati sukkurul munimi mooy nga sant yàlla carrément sukuru ni'mati nag mooy xéewal gi la jox bari ñum ko xeeñ lool nga sant yàlla ci jox gim la ko jox euh, mag ñi da ngay nettali ne góor ak yàlla ga maam rawxaan ngom benn bis benn dërëm da ko réer mu koy seet di ko seet di ko seet di ko seet sonn ca lool ah, ku ko yab ñëw ne ko waaye dërëm rek dëgg-dëgg góor gi yaa bëgg xaalis benn dërëm nga seen nekk fii di ko di ko seet rek mu ne dama gis ne mbindee fi niñ bëree yàlla teg gi ñëpp jox ma dërëm booba dama ko bëgg a sant ba war ko ne ko jox maanaam war naa la ci àq dinaa ci sonn kon alal ku ko yàlla jox bëri ñum xëy da nga koy da nga war sant yàlla ca loola toppatoo ko bu baax a baax boole ko tamit boo ko toppatooyee ba yore ko def ko ci lu yàlla gërëm loolu lépp ki sant yàlla la waaye yàlla jox la alal nga def ko ci lu yàlla bëggut mbokkam seytaane ga ndax kat nga innal mubadirina kaanu ixwaana shayatini wa kaana shaytaanu li rabbihi kafura loolu la baaxul kon saar wi jeex na